kuy jàng kii jàng nañ ko wutal place kii jàng bàyyi laaj bàyyi laaj bismillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa radiyallahu an mawlana abil abbas sayidi ahmad attijani wa radiyallahu an warisi sirrihi wa saahibi faydatihi al uzma سيدي ومولاي الخليفة خليفة صاحب الفيضة التجانية مولانا فضيلة الشيخ محمد الماحي إبراهيم يس نستأذن في افتتاح الجلسة جلسة كلها في الله بالله لله gannaaw bu ñu leen waxee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jël ndigal ci moom ci xalifa bi jotaayu ziyaara Medina Baye 2001 fasu na ci ndigalam li gën ci li ñuy tàmbalee mooy alquranul karim ki koy jàng mooy euh, cheikh Baye Alhaaji ibnu cheikh Ahmad Tijaani ibnu sayidi alxaaji Mouhamed Zeynab fal yatafaddal bismillah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 يرزقكم ويدخلكم جنات يقول yahfizuka euh, jotaay bu tedd set su tedd woote ko ci njiital imam bu tedd ci teewaayu xalaf saalix ñaal salaf saalix ñu oo taalibe yu tedd ñu teew ci pey bu tedd oysi xalifa ba gën a tedd xadiisul qudsi bu tedd di diri sembaanam ci seen kaw ñoom ñépp wajabat mahabbati lil mutaxaabiina fiya wal mutajaalisiina fiya wal mutabaasiliina fiya boobu jotaay boo amee ñu laaj imaamul akbar programme bi ni muy demee mu nañu ñaari kàddu ñoo fi jëpp bi koy ñetteel mooy ñi oote kiñ jiitaloon mu wax xalifa bi ñiñ ooxoon nan lañ ñëwee ki ñuy jox kàddu gi mooy xalifatu fadilatu mawlana cheikh abi bakrin al muthanna cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh sëriñ Mbay ca nañ ko gën a xamee jotaay bii bu fasoo xel yëpp danañ dem ci salafu saalix danañ dem ci ñoom maam Abdou danañ dem ci maam Sëriñ Mbay sëñ Ibra Faal cheikh Omar Touré sëñ Ousmane Ndiaye demet waaye xel dana dem ci alxaaji Barham Bay Barham ibnu Cheikh Serigne Mbaye ndax euh, def na fi tampongam boo xam ne wax dëgg yàlla na ko ay baayam ak i maamam defe woon taarix du ko fàtte kon sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel ci jotaay bu bees bii di la ñaanal yàlla tawfiq cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Serigne Mbaye kàddu gi nga xam ne mooy kàddu euh, fataaya wa rasu sax bi di kàddu cheikh sëriñ bay nekkoon kàddu alxaaji barham mi ñëpp xam te yow la yàlla def yaa toog seen place waaye kàddu gi yaa ko moom ndax yow la fi yàlla teg bismillah leen ko mu toog mbokk yi Baye Mahi ne bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira maa ngi sant sama boroom ne mu ngi sant boroomam sukkandiku ci suñu boroom. di sukkandiku. suñu boroom. ci barkeb suñu sëriñ. ci barkeb suñu sëriñ. Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. ci barkeb suñu buntu ci moom. ci barkeb suñu buntu ci moom. muy Cheikh Serigne Mbaye. muy Cheikh sëriñ Mbaye Niass. ci barke bi mu fi jógee ki ko huutu. ci barke bi mu fi jógee ki ko huutu. te sellal rafetal. te sellal rafetal lool. ñu ngi ñaan suñu borom moomu yàlla na méngoo suñu mbir. ñu ngi ñaan suñu borom moomu. yal na méngoo suñu mbir yaa rabbi ndax moo yaxal ci boppam ne wakkafa billahi waliyan wakkafa billahi nasira mu ne mooy aji méngoo ndax moom suñu boroom moo wax ne moom mooy aji méngoo nit ku baax sax ku méngoo sa mbir dana yoon waxuma ak yàlla nit ku baax sax ku méngoo sa mbir dana xéwén xam ngeen waxuma la yàlla. kon yal yàlla méngoo suñu mbir. kon yal na yàlla méngoo suñu mbir yaa rabbi. yàlla mu ne mooy dimbale. yàlla mu ne mooy dimbale. yal yàlla dimbale. yal na yàlla dimbale yaa rabbi. moo tax Cheikh Serigne Baye waxoon ne. moo tax Cheikh Serigne Baye waxoon ne. xamul ku góor ko yàlla dimbale la xam. xamut ku do góor ku yàlla dimbale la xam ba wax ji siiwee mu soppi ko ne ba wax ji siiwee mu soppi ko ne ku yàlla dimbale nga yàpp ku la man ku yàlla dimbale yow danga nga yàpp ku la man kaddu yi nag dama ko doon xubbee doog a nuyoo ne kaddu yi mu wax daf koy xubbee soog a nuyoo sëriñ bi ñu ngi lay nuyu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ci làmmiñu taalibe yi. ci làmmiñu taalibe yi yépp. ci xëy naa seeni xol. ci xëy naa seeni xol. ak seen mbëggeel gu mat sëkk. ak seen mbëggeel gu mat sëkk. teg ko ci ñaari fànn. teg ko ci ñaari fànn yii. nga digle ñu dégg nga nga nga tere ñu bàyyi. nga digle ñu dégg nga tere ñu bàyyi ndax mate nga ko ndax mate nga ko sëkk sa jotaay bii sa jotaay bii boo jàngutoon benn baat boo jàngutoon benn baat waaye ñi nga fekkee waaye ñi nga fekkee dund ci seen ron dund ci seen ron muy Mawlana Cheikh Ibrahim. muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu jógee fi. mu jógee fi. xalifaam suñu baay Serigne Aliou Cissé wuutu ko. xalifaam suñu baay Serigne Aliou Cissé wuutu ko. jógee fi. jógee fi. Alaaji Abdoulaye wuute ko. wuutu ko. jógee fi. jógee fi. sëñ Daam wuutu ko. sëñ Daam wuutu ko. jógee fi. jógee fi. sëñ Cheikh wuutu ko. sëñ Cheikh wuutu ko. kooku bu xamutoon dara sax war naa xam kooku bu xamutoon dara sax war naa xam waaye ndokk bi nga xamee ne lépp fekk na ngay boroom xam-xam waaye ndokk bi nga xamee ne lépp fekk boroom xam-xam jotaay bii nag li may fàttali na jotaay bii nag lim koy fàttalil man suma ànd na ak sama baay jógee kër ma jibel moom su àndoon ak baayam baaxee koo kër ma jebel mu ñëw Medina mu ñëw na balaa hegg ci baay. balaa hegg ci baay. radiyallahu anhu. fokk mu dem ci Serigne Aliou. fokk mu dem ci Serigne Aliou. ndax ñoom ñaar jënd jëmm la. ndax ñoom ñaar jënd jëmm la xam ngeen. buñ gisee baay ba pare. buñ gisee baay ba pare. booba garab yi nekkoon fii. booba garab yi nekkoon fii di ay mango ki ndar gannaaw gexe. gannaaw gee ñaar ñoo gis ñu toog ñaar ñoo gis ñu toog lañ sol weex tàll lañu sol weex tàll sëriñ Mbay ak sëriñ Aliou Cissé la Mbay ak sëriñ Aliou seen jotaay seen jotaay ñoom ñaar duñ ci wax lenn duñu ci wax lenn lu may lu xéwénal pays bii lu bii loolu rek mooy seen liggéey. loola. loola. moo jur lii. moo jur lii ñu gis tey. ak kilifa yi nga xam ne. ak kilifa yi nga xam ne. ñoo bokkoon ak ñoom. ñoo bokkoon ak ñoom. Baye ku mel ni Baye Cheikh Omar Touré. Baye Cheikh Ousmane Ndiaye. Baye Cheikh Ousmane Ndiaye. Baye Cheikh Ibra Fall. Baye Cheikh Ibra Fall. Baye ñii ñooy kàngam yi nga xam ne ñii ñooy kàngam yi nga xam ne lépp lu ñëw tey ci loola la sosoo lépp lu ñëw tey ci loola la sosoo ba léegi dara yàquwut ba léegi dara yàquwu ci baykat yi xam nañ ne na ñun baykat yi xam nañ ne gajji moom loo fa gajji rek moo fay jébbi gajj moom loo fa gajji moo fay jébbi wat rek loolu ba tey moo fi kon ba tey loolu moo fa ne kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla. kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla. te di la ndokkeel. te la ndokkeel. bi nga xamee ne. bi nga xamee ne. lii ma wax lii ma wax yëpp fekkee nga ko. lii mu wax nii yëpp. fekkee nga ko. te dund ñoom. te dund ñoom. waaye dañoo yëg ne. waaye dañoo yëg ne. yàlla may na la loo xam ne. yàlla may na la ak may goo xam ne. dama koy wax rek ngir yàlla. ne daf koy wax rek ngir yàlla. loola mooy lan. loola mooy lan. xam ni jamonoy tëddee. xam ni jamonoy tëddee. ak li jamono laaj. ak li jamono laaj. ak mën a wax ak ñooñ jamono. ak mën a jamono ñu déglu la. bu fekkoon ne baatab intellectuel mën naa ko paase danaa wax lu paase loola. ne bu fekkoon ne baatab intellectuel mën na koo paase. ne moom nga. dana wax na yow romb nga intellectuel. ndax. ndax. li xew ci jamono yaa ngi koy xam. li xew ci jamono yaa ngi koy xam. kon nag. kon nag. fi ñu jëmee suñu kàddu gannaaw ñaanal la. fi ñu jëmee suñu kàddu gannaaw ñaanal la. ñaanal say rak. ñaanal say rak. ñaanal say jëwdiin. ñaanal say jawrin ñi nga xam ne ñoo ngànk pays bii ñi nga xam ne ñoo ngànk pays bii ci sa ndigal ci sa ndigal te di la liggéeyal te di la liggéeyal ci buntab yàlla ci buntab yàlla ku ne xam ne liggéey bi rafet na te ku ne xam na ne liggéey bi rafet na lool maa ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla mu ngi leen di te di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla fu mu toll yal na yàlla fay leen yàlla fay leen yaare bi waaye nag ñu ngi bëgg a wax ne waaye nag ñu ngi bëgg a wax ne. xommat mi la yàlla sédd yow tey. xommat mi la yàlla sédd tey. fekk na xam-xam tënkeeku. fekk na xam-xam tënkeeku. ba jotaay bii. ba jotaay bii ñu toog tey. taalibe yi nekk Amérique ñu ngi koy seetaan. taalibe yi nekk Amérique ñu ngi koy seetaan. fu taalibe nekk ci monde bi mu ngi koy seetaan. fu taalibe nekk ci monde bi mu ngi koy seetaan. mu tolloog génération boo xam ne. mu tolloog nag. génération boo xam ne. cent yoo jël. cent yoo jël. mën nañoo wax ne quatre vingt quinze pour cent yëpp ay gone lañ. mën na ñoo wax ne quatre vingt quinze pour cent yëpp ay gone lañ. cinq yi ñoo ciy mag. cinq yi ñoo cay mag. trois yi ñu ngi toog. trois yi ñu ngi toog. fañ nekk mënuñ faa jóg. fañ nekk mënuñ faa jóg. kon mu des ñaar. kon mu des ñaar. kon. kon. li ma bëgg wax mooy. na lim bëgg a wax mooy. mbooloo mu mel noonu. mbooloo mu mel noonu. te mooy àddina bi. te mooy àddina bi. li ci Mawlana Cheikh Ibrahim am. li ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu am. te ku def sondage gis li ma la wax. te ku def sondage di nga gis lii mu la wax. quatre-vingts pour cent. quatre-vingts pour ay taalibe Alaaji Ibrahima Niass lañ radiyallahu te ñëpp ay ndaw lañ. ay ndaw lañ. ñooñu nag. ñooñu nag. ku leen bëgg a jiite. ku leen bëgg a jiite. bëgg ñu wi dem. bëgg ñu dem. dara du yàqu. te dara du ca yàqu. foog mu amee sa jikko. foog mu amee sa jikko. foog mu amee sa xalaat. foog mu amee sa xalaat. foog mu ubbeeku. foog mu am dignité bi. foog mu am dignité bi. yal na la yàlla dëgëral. la yàlla li ñu ci gën a neex. ne li ñu ci gën a neex nag. bi jamono nëxee bi jamono nëxee yàlla dimbali ñu yàlla dimbali ñu suñ mag Baaba mii ne seen mag di bàyyi Baaba mii yàlla jox ko xalaatam mu invité la Ndakaaru yàlla jox ko xalaatam mu invité la Ndakaaru buñ sañoon buñ sañoon yoon woowu yoon woowa weer wu ne mu xam weer wu ne mu xam ndax ñun yëg nañ ne ndax ñun yëg nañ ne. yokk xam na ci saahir. yokku xam na ci saahir. yokk xam na ci baatin. yokku am na ci baatin. pas-pas yi ñu fasoon. pas-pas yi ñu fasoon. ci wàllu xol bu tàng wala yàq. ci wàllu xol bu tàng walla yàq. dagara ba bu doon cent. dagara ba bu doon cent. quatre vingt dix yëpp dem na. quatre vingt yëpp dem naa. lépp sa kaddu dëgg ak xam xam sa wax fi nga koy teg. lépp sa kaddu dëgg ak xam li ngay wax fi nga koy teg. nekkuma fi nag di taggaate. ne nekku fi nag di taggaate de. damaa wax li xam rek. daa gis li xam di ko wax. te ñëpp noonu lañ xam ne noonu la xamee. te ñëpp noonu lañ xamee ne it noonu la tëddee. yal nañu yal nañu la yàlla fayal. yal nañu la yàlla fayal yaa rabbi. kon nag. kon nag. pays baa ngi nii. pays baa ngi nii. ñu ngi ñaan. ñu ngi ñaan. bés bii. bés bii. taalibe yi ñoo ko moom. taalibe yi ñoo ko moom. lu tax ñoo ko moom. ana lu tax ñoo ko moom. ñoo bëgg seen sëriñ. ndax taalibe yi ñoo bëgg seen sëriñ. waxtaane seen sëriñ. ñoo waxtaane seen sëriñ. bëgg dolle ko ci moom. ñoo dikk bëgg a dolleeku ci moom. seet bunt bi ñu war a xawee. seet buntu bi ñu war a xawee. pour mën a jëriñ ci seen sëriñ. pour mën a ñëw jëriñ ci seen sëriñ. dara doyuñ ci lu muy buntab siyaare. dara doyu leen ci lu muy buntab siyaare. ñu ne imaam Cheikh Cissé. ñu ne imaam Cheikh Cissé. yow mi sës ci kër gi. yow mi sës ci kër gi. di xam li ñuy hendoog li ñuy fanaanoo. di xam li ñuy hendoog li ñuy fanaanoo. leetar yaa ngi noonu. leetar yaa ngi noonu. mu bind lépp ca bam ko waree bind. mu bind lépp ca bam ko waree bind. joxuñu ko ñu tasaare ko. jox leen ko ñu tasaare ko. mu waxit ba mu waree wax. mu waxit wax ju fasaa ba mu waree wax. ñépp dégg ko. ñëpp dégg ko te déglu ko it. bu fekkee dëgg rek wax. bu fekkee ne dëgg rek lay wax. dimension bi siyaare bi am tey. dimension bi siyaare bi am tay ah gëj mbir day xam. ma ne na fee am. gëj na fee am. wala musu fee am boobu. wala daf fee mosta am sax. kon jërëjëf yow itam. kon yow itam. kon nag lan lañ dese tey. kon ana lan lañ dese tey. dama bëgg. ne dafa bëgg. ñëpp xam ne Baye Niass. ñëpp xam ne Baye Niass radiyallahu anhu. dimension am ci àddina bi. dimension yam ci àddina bi ñu ne. passé na marabu bi ñu jàpp ne mooy marabu. passé na. sëriñ biñ jàpp ne mooy sëriñ. dimension yam paase na loolu. dimension yam paase na loolu xam ngeen ko de. kon mbooloo xam yi tamit. kon mbooloo xam tamit. dañu war a nekk meneen mbooloo. dañoo war a nekk meneen mbooloo. di yëkkatee ndoor di tëralee ndoor. di yëkkatee ndoor di tëralee ndoor. siyaare. siyaare. ca njëlbeen. ca njëlbeen. moo doon gën a xumb gàmmoo. moo daan gën a xumb gàmmu. jële daawut fanaan. ndile daawut fanaan. waaye ñun fekkee nañ loolu. waaye na ñoom ñii fekkee nañ loolu. état bi tam état hit. état bi tam état hit. li ma fàttaliku man. na li ma fàttaliku moom. koo gis muy nit ak koo gis muy homme d'état. bésab gàmmoo. bésab gàmmu. tarifa bàyyi la. tarifa bàyyi la. tarifa la. xaritam la. xarit ak bàyyi la. ñëw fekkee li ko. ñëw fekk si ko bësam boobu. waaye délé délégation officielle. waaye délégation officielle. ci siyaar rek la daan am. ci siyaare rek la daan am. bu ñëwee. bu ñëwee. fekk si taalibe yi. fekk si taalibe yi. li ci ëpp ay baykat lañu. te ci ëpp ay baykat lañu. su boobaa. su boobaa. ñu wax. ñu wax. ñeneen ka leen ebal. ka ebal. di président. di président. ñu wax lam leen yónni. ñu wax lam leen yónni. bàyyi na sëriñ bay tontul. bàyyi na sëriñ Mbaye tontul ñii. bu paree. bu pare bàyyi ñaan la cay teg. bàyyi ñaan la cay teg. soog a wax nag. soog a wax nag. ci gàncaxi xol yi. ci gàncaxi xol yi. taw ci xol yi. taw ci xol yi. ñu ji. ñu ji. mu sax mu. ba nga gis ni gàncax gi naatee ci xol yi. ba nga gis ni gàncax gi di naatee ci xol yi. ba meññ ci xol yi. ba meññ ci xol yi. ñu dem ba déwénati. ñu dem ñibbi ba déwénati. ku ci ne am lu mu yóbbaale. ku ci ne xam yóbbal koo yóbbaale fa nga jëm. kàddu gi ma bëgg a wax nag. ne kàddu gii mu bëgg a wax nag. Serigne Mbaye fii la ko waxoon ci kanam Baye. Serigne Mbaye fii la ko waxee woon ci kanam Baye. moo waxoon fii ne. moo waxoon fii ne. wax doyatuñu. wax doyatuñu. ci ministre. ci ministre. ci député. ci député. ci politicien. ci politicien. ci taalibe. ci taalibe. doyatuñu ci lenn. doyatuñu ci lenn. lu mooy wax ci lu xam mbaaluy xamal. lu mooy wax ci lu xam mbaaluy xamal. lu dul loolu neexatuñu. lu dul loolu daal neexatuñu. ñun ñëpp dégg nañ loolu. ñun ñëpp dégg nañ loolu ci kaset yi. kon nag. kon nag. ñun taalibe yi ñu ngi ñaan. ñun taalibe yi ñu ngi ñaan. suñ gàmmu gi suñ gàmmu gii. Baay Ñas moomam gàmmoo xam. Baay Ñas moo moom gàmmoo moo xam. moo xam yonent bi. moo xam yonent bi it. ñu topp ko. ñu topp ko. ndax mu xamal yonent bi. ndax mu xamal ñu yonent bi. ñu gën koo bëgg. ñu gën koo bëgg. mu xoote ñu fekkal si ko. mu xoote ñu fekkale si ko ci gàmmoom googu. pour nga xam ne loolu lu am la. pour nga xam ne loolu lu am la. ci li ma ko man. ne ci lim ko moom. bésab gàmmoo. bésab gàmmu. bàyyi ci kaw. bàyyi ci kaw. sëriñ bay ca tant ba. sëriñ bay ca tant man mosuma koo fekkee. moom mosut koo fekkee. boo gisee sëriñ bay ci tant rek. boo gisee sëriñ bay ci tant rek. siyaara la. siyaara ndax lan. ndax lan. dañ njaboot gi. njaboot gi. sëriñ bee leen xilif. sëriñ bee leen xilif. buur bi. buur bi. mooy kilifa gi. mooy kilifa gi. kilifa dafa soxla njaboot. kilifa dafa soxla njaboot. suñ njaboot xamut kilifa amut. suñ njaboot xamut kilifa amut. njabootam. njabootam. bu xamul bu kilifa. doxalinam du sol du sotti. doxalinam du sotti. kon li ma bëgg a wax. kon ne li bëgg a wax foofu. mooy. mooy. njaboot ak bàññees gii. njaboot ak bàññees gii. te xamut ci biir réew mi. te xamut ci biir réew mi. suñu état bii. suñu état bii. ak ku ko mën a jiite. ak ku ko mën a jiite. rawatina ki fi ne. rawatina ki fi ne. ñu ngi koy wax ne. ñu ngi koy wax ne. bu ñu xewleetee suñu siyaare bii. bu ñu xewleetee suñu siyaare bii. loolu ñu ngi koy ñaan sëriñ bi. loolu ñu ngi koy ñaan sëriñ bi. nañ ñu ebalal bu mënee ñëw baax na bu mën a ñëw na na seet ku sës moom nga xam ne duñ ko wax mu dégg ko. su mënee ñëw baax na su mënta ñëw nañu ebalal koo xam ne fa sës ci moom kenn luñ fi wax dana ko ko jotale nit ku am mbooloo xam-xam-xam jub baax di baax le kenn du ko taxañ. nit nit ñu nit ku xam mbooloo. am xam-xam baax baax kenn du ko taxañ xëpp ko ci mbuus. baat ci biir réew mi baat ci réew mi. baat ci biir réew mi baat ci biti réew mi. pour ngeen xam ne li ma wax am na. pour ngeen xam ne li wax am na. bu ma ne woon ku fi étranger yëkkatil sa loxo. bu ne woon ku fi étranger yëkkatil sa loxo. ah ñiy jóg danañ bëri de. ñiy jóg danañ bëri de. te la làkk yi wutee. te noonu lay làkk yi wutee. pour ngeen xam nag cheikhul islam. pour ngeen xam nag. kan mooy seexul islam. yéen tubaab yi Nations Unies bi ngeen di wax. yéen tubaab yi Nations Unies bi ngeen di wax. El Hadj Ibrahima Niass moo ko jëmmal. El Hadj Ibrahima Niass. moo ko jëmmal. boo fi ñëwee làkk woo fi làkk ñu tontu la ko. boo fi ñëwee làkk woo fi làkk ñu tontu la ko. tekkala ko tontu daf koo namp. tekkala ko tontu daf koo namp. jëggaaniwu ko. jëggaaniwu ko fenn. naar yi seen sët yaa ngi fi. naar yi seen sët yaa ngi fi. hawsa yi seen sët yaa ngi fi. awsa yi seen sët yaa ngi fi. jarma yi seen sët yaa ngi fi. jarma yi seen sët yaa ngi fi. bambara yi seen sët yaa ngi fi. bambara yi seen sët benn ci man mi ak ñeneen. benn ci moom mii ak ñeneen. sët yëpp a ngi fi. sët yëpp a ngi fi. loolu nag. loolu nag ku ko boole. ku ko boole. lan mooy Médina ci Sénégal. lan mooy Médina ci Sénégal. lan mooy ci àddina bi. lan mooy Médina ci àddina bi. te ay gone neen seq ko fi ne te ay gone yi neen seq ko fi mu ne mag ñi tuuti lañ mag ñi tuuti lañ jar na nag ñu xam ñooy ñan fi mu ne jar na nag xam ñooy ñan fi mu ne ba buñ dajeexee ci siyaare ba buñ dajeexee ci siyaare jëlee fi loo xam ne jëlee fi loo xam ne ci la ñuy liggéey ba déwénati ci la ñuy liggéey ba déwénati bu ël bu déwénee bu déwénee. ñu andi résultat yi. ñu andi résultat yi. ñu xam ne jéego bi lañ jéggi. ñu xam ne jéego bii lañ jéggi. ñu pare beneen ca kanam. ñu pare beneen jéego ca kanam. ndax bàyyi du amul tànki gannaaw tànki kanam la am. ndax bàyyi amul tànki gannaaw de tànki kanam la loolu sëriñ bi ñu ngi koy ñaan. loolu sëriñ bi ñu ngi la koy ñaan. kilifa dafay am baat. kilifa dafay am baat. kilifa dañ koy jox baatam. kilifa dañ koy jox baatam. kilifa dañ koy jox baatam. kilifa dañ koy jox baatam. nañ ko bokk def bokk yàq rek. nañ ko bokk def bokk yàq rek. kilifa dafay am njiit. kilifa dafay am njiit. kilifa kon mooy njiit. kilifa mooy njiit daje day am njiit. ñëpp ñu déglu ko. ñun ñëpp ñu déglu ko. bu digalee ñu def. bu ñu digalee ñu def. bu ñu teree ñu bàyyi. ñu teree ñu waaye. tey jii nii. tey jii nii. kum neex. ku mu neex. nga kalaame kala neex. nga kalaame kala neex. ñu xam sañ-sañ ci jël si ko. ñu xam sañ-sañ jël ko. te ko koy jël si. te ka jël si. du xalaat ne kii xam na kilifa. du xalaat ne kii xam na kilifa. mu war ko xormaal. mu war ko xormaal. loola dana jeex. loola dana jeex. te wallaahi dana jeex. te wallaahi dana jeex. na Baye gii. na baay gii. lam xamoon. lam xamoon. ci kaaraanga. ci kaaraanga. ak lu mën a doon. ak lu mën a doon. dana dellu si. dana dellu si. dara mënu ko tere dellu si. dara mënu ko tere dellu si. foog ñu xormaal ñu. foog ñu xormaal ñu. la ca des nag. la ca des nag. ñii dañoo baax. ñii dañoo baax. nekk boromi kersa. nekk di ay boromi kersa. cëpp cëpp ji bëri lool. cëpp cëpp ji bëri lool. bàyyi ñaan lépp. bàyyi ñaan lépp. ba lépp yomb. ba lépp yomb. nga nekk ci biir nit ñi. nga nekk ci biir nit ñi. loo wax loo wax askan wi bàyyi ñu ne dëgg la. loo wax askanoo bàyyi ñu ne dëgg la. boo laajee ñu jox la. boo laajee ñu jox la. nga xëy rek kaalawu. nga xëy bés rek kaalawu. gone yu xamut dara topp la. gone yu xamul dara topp la. ngay sërëx sërëx rek. ngay sërëx sërëx rek. ci biir pay e Baye bii. ci biir pay e Baye Niass bii. yàlla xam na ne. yàlla xam na ne. yërëm naa ku koy def. ne yërëm na kuy sërëx sërëxi ci biir pay e Baye bii. na ngeen xam ne mag ñi fowuñ. na ngeen xam ne mag ñi fowuñ foluwuñ. bu doon fo sëriñ Aliou du toppal Ibrahima Niass. bu doon fo. sëriñ Aliou du topp alaaj Alaaji a Niass. sëriñ Mbaye du ko topp. sëriñ mbay du ko topp. wax na ko ko fii. wax na ko ko fii. ne ko. ne ko. man de ku ma jiituwul si duul yàlla. man de ku ma jiituwul te doxut yàlla. su ma la waxul dara it du ma la topp. su ma la waxul dara it du ma la topp. Aliou Diagne sax moo wax du du du waaye sëriñ Mbaye daf ne dootoo ma doy. Aliou Diagne sax moo wax ne dootoo ma topp waaye sëriñ mbay daf ne dootoo ma doy. waaw li topp bàyyi ci kilifa. waaw li topp bàyyi. ci kilifa. Baye Cheikh Oumar Touré. Baye Cheikh Oumar ba Taïba Niangeen. Taïba Niangeen. sëñ Ibra Fall. sëñ Ibra Ndiaye. sëñ Ousmane Ndiaye. ñëpp mën nañoo dajee ci caaxaan ak réer. ñëpp mën nañoo dajee ci ak caaxaan ak réer. déedéet. yow nga foog ne rek. yow nga foog na rek. xëy xam dara joosol. xëy am dara ju bees joo sol. te wóor na la dara ji bàyyi moo ko ñaan. te wóor na ne dara ji bàyyi moo ko ñaan. bàyyi fi neexoon ak maam yi. bàyyi fi neexoon. ak maam yi. man fi la fekk. ne moom fi la ko fekk. koo ci xoolaan ndigam dafay mel ni da cee def puudar. koo ci xoolaan ndigam dafay mel ni daf cee def puudar. ngir xokkatu. ngir xokkatu. amuñ yére. amuñ yére. kenn amu ci kenn amu ci woon loo ñu tawat ko bàyyi. ñu tawat ko bàyyi. mu mu taalif ci way mu taalif ci way ba léegi ku ko jàng da nga ba léegi ku jàng way woowa da nga xodd bu baydal baana oryaana ku bel eedi yaa muxtaral adnaani arubu jamilun aksirti nafsi kazaka allu kulul kaan ahyaana libaasan yaa nabiyallahi inni la muhtaajun illaa wujdaani xos fala arjo siwaaka ala maraami kafa bi ko bisri way ihlaani ne way li ma ñaan sama borom nangul na ma ko na li ma ñaan sama borom nangul na ma ko da ngeen xodd ba xodd seen tabax yi da ngeen ba wax leen. la mu waxoon am na. la mu waxoon am na. lu mu wax am na. lu mu wax am na te muy dëgg. waaw jëmmi saaram bi dëdd ñu. jëmmi saaram bi dëdd ñu. jëmmi saaram bi mu wëccee ñu njabootam. mu wëccee ñu njabootam gi. di leen xoolee. ñu di leen ko xoolee. ñëpp bëgg leen ko bëgg leen a def morom. ñëpp bëgg leen a def morom. xal ko rek. xam na baax de. xam na ne du baax de. ku xam pay ku xam pay Baye Mbaye Niass mi ma miin man ne Baye Mbaye Niass mi miin moom buñ jógee xaar mu ñu war a ñëw ci Baye buñ jógee waan war a ñëw ci Baye Kawlax Kawlax yow mi ànd ak moom yow mi ànd ak moom kaalaga kaalaga mbaxana ma mbaxana ma dàll yi bu ko futbalee dàll yi bu ko futbalee ak xet wi ak xet wi yaay dajale yëpp yaay dajale yëpp yaay dajale yëpp. yaay dajale yëpp. waaye moom ci néeg bàyyi. waaye moom ci néeg bàyyi. beneen mbir la. beneen mbir la. ngeen baal ma nag ma nettali ci tuuti. na ngeen baal ko nag mu nettali ci tuuti. booba maa ngi ciy waxambaane gi. ne booba mu ngi ci waxambaane gi. mu sol pantalon jean te bëgguma pili yi damm. mu sol pantalon jean te bëggul pili yi damm. ak bi. ak simisam. bañ duggee. bañ mbay Baye Mbaye waxuma sukk. Baye Mbaye waxut ko mu sukk. bi. biiram bi. ci suuf la ko teg ak sikkiñam bi. ci suuf la ko teg ak sikkimam bi. maa ngi gis ni muy rag-ragee mel ni ku gis malaaka. mu ngi gis ni muy rag-ragee mel ni ku gis malaaka. li ñu olof yi wax cooferlu. li xolof yi di wax cooforlu. bëgguma jonkon ndax sama pantalon kii damm. ne bëggu te jonkon ndax day bañ pileem yi ci pantalon bi damm. bi bàyyi xaaxtandikoo di tafli nii bi bàyyi xaaxtandikoo di tufli nii bi mu ma dóoree ci sama dajoor bi ne bi mu ko dóoree ci dajooram gi dafa mel ni marto la ma dóor dafa mel ni marto lañ ko door mu ne groupe mu ne groupe bàyyi na un bàyyi na un ba ñuy génn la téye sama nopp bi ne ba ñuy génn la téye ci noppam bi inna lillahi ne ko inna lillahi yow nii ngay toogee ci nekk sëriñ bi yow nii ngay toogee ci nekk sëriñ bi fii de dootoo fi dugg moom fii de dootoo fi dugg moom ñooñu ñoo xam El Hadj Ibrahima Niass. ñooñu xam El Hadj Ibrahima waaye dugg ci pay e baay bii. waaye dugg ci pay e baay bii. <laughs> mbooloo topp la di sikkar. mbooloo topp la di sikkar. waaw baax na. waaw baax na. dañ la ba. danañ la ba te bañ lay baxee. te bañ lay baxee. day fekk satala sax dootoo ko mën a yëkkati. day fekk satala sax dootoo ko mën a yëkkati. rek ñu bala nag. su boobaa nag. ñu bala nag. ba pencam yàlla. ba pencam yàlla. dootoo am jàmm. dootoo am jàmm ci sa bopp. ba leen pay bile bu ko fontoo. ba leen pay bile bu leen ko fontoo. bu leen bile. bu fontoo pay bile. loo bëgg bëgg te dëkkoo fii. loo bëgg bëgg te dëkkoo fii. xormaalal ñooy pay bi ñi ñi ko dëkkee parce que ñoo gën a xam. xormaalal ñooñ pay bi ñu ko dëkkee ndax ñoo la gën a xam. pays bi. ñoo la gën a xam. ñoo la gën a xam. bay Mbaye. bay Mbaye. Serigne Aliou dafa do sëriñam. Serigne Aliou dafa do sëriñam. du sëriñam. du sëriñam. waaye xaritam la ci bay waaye xaritam la ci Baye. soppeem la ci Baye. soppeem la ci bay bay Mbaye dafa ne kii daal sëriñ dafa diis. Baye daf ne. kii de mu ne. Baye Mbaye dafa ne. kii sëriñ dafa tal. kii sëriñ dafa tal. war nga am xarit bu nekk sa diggante sëriñ bi. war nga am xarit bu nekk ci sa diggante sëriñ bi. boo ñëwee laaj ko ban xaal la bi nekkee. boo ñëwee laaj ko ban xaal la sëriñ bi nekkee. mu xamal la xaal ba mu nekkee. te booy demit mu gunge la ngeen bokk ànd. te booy demit mu gunge la ngeen bokk ànd. man de yërëm naa. ne moom de yërëm na. ku foog na yëf ay formalité rek la. ku foog na yëf ay formalite rek la. kaalawu rek. ñëw kaalawu rek. soli dara rek. soli dara rek. foog na lu neex rek ngay def. foog ne lu neex rek ngay def. da nga ko rëccu ba pencam yàlla. da nga ko rëccu ba pencam yàlla. xanaa nekk taalibe moo gën moo gën moo gën a am liberté. xanaa xamul leen ne nekk gën a am liberté. sëriñ bi fi mu toog nii ci bagam bii. sëriñ bi fii mu toog nii ci gàngunaayam bii. mënta tëdd. mënta tëdd. fi mu toog rek bu bu sonnee ci lay toog bu bu ci lay toog. fi mu toog nii bu sonnee fi lay toog bu sonnut fi lay toog. ñun ñi ku mu nga tëdd léegi boo sonnee. ñun ñii ku mu neex nga tëdd léegi boo sonnee. waa ji basang ak sëriñ moo gën a yaatu taalibe moo gën a yaatu. waa ji ak taalibe moo gën a yaatu. nañ toog ci basang bi. nañ toog ci basang ak taalibe bi. te sees bi ñu bàyyee ko sëriñ bi. te sees bi ñu bàyyee ko sëriñ bi. Cheikh Sëriñ Bay mu ne. Cheikh Sëriñ Bay mu ne. boo amee kilifa da koy dimbale mu tane la man laa dimbale. ne boo amee kilifa da koy dimbale mu tane la ndax mu mën laa dimbale. nañ déglul bu baax a baax a baax. déglul wax bi bu baax. ñun nag ay taalibe Baay lañ. ñun nag ay taalibe Baay lañ. kum fi bare ñu topp la. kum fi bare ñu topp la. wàll gi ñu féete nag. wàllu gi mu féetee nag. te lim ñu defal la defal yéen ñëpp. te lim ñu defal la leen defal yéen ñëpp. li ñu bàyyi defal. li ñu bàyyi defal moom la defal ñëpp. moom la defal ñëpp. kon boo demee ba ragaloo. kon boo demee yow ba ragaloo. ba ragaloo def dara. ba ragaloo def dara. xanaa nga xam kersa bopp. xanaa nga war cee mën a xam kersa nag. nga rus sax. waaye doo doo ragal. waaye doo rus. doo ragal may wax nag. ne lii muy wax nag. disuuma ci kenn. gisuwu ci kenn. disuuma ci kenn. diisoowu ci kenn. ci ci wàllug taalibe. ci wàllug taalibe. ci wax ci wàllug taalibe. ci wax ci wàllug taalibe. ñi ma ci gën a jege kenn ngi nii. ñi ko ci gën a jege kenn ngi nii. muy imaam Cheikh Tidiane Cissé. muy imaam Cheikh Tidiane Cissé. ak doomi muqaddam yu mag yi. ak doomi muqaddam yu mag yi. waxuma cee kenn. waxut cee kenn. waaye lii lañ ci la boo xam ne. waaye lii lañ ci la boo xam ne. danañ koy yabli. danañ ko yable danañ ko topp. tey danañ ko topp. ba pay bii kenn du ko yàq. ba pay bii kenn du ko yàq. kenn mënu ko yàq te kenn du ko yàq. kenn mënut koo yàq te kenn du ko yàq. tey respect ba ba ca war danañ ci danañ ko danañ ko jël. te respect. responsable ba ca war danañ ko jël. respect ci bi nga xam ne moo war daañu ko jox. respect bi ci warit danañ leen ko jox. nangu nañoo bay. nangu nañoo bay. nangu nañoo jàng. nangu nañoo jàng. bëgg nañ suñu sëriñ. bëgg nañ suñu sëriñ. duñ tooñ. duñ tooñ. duñ dimbale kuy tooñ. duñ dimbale kuy tooñ. duñ yàq. duñu yàq. duñ taraak. duñu taraak. duñ sànni xeer. duñ sànni kër xeer. topp sa ndigalal sëriñ. topp sa ndigalal sëriñ. te ñun ñoo leen dimbale. te ñun ñoo leen dimbale. suñ sëriñ ñoo leen dimbale. suñ sëriñ sii ñoo leen dimbale. sama baat ci kaw. ne baatam ci kaw. lépp luy toj réew Sénégal def na ko ba tey tojut. lépp luy toj réew. Sénégal def na ko ba tey tujut. suñ kilifa yii ñoo tax. suñ kilifa yii ñoo tax. bi ngeen ñu xilifee itam ñoom ñoo moom xol yi. bu ngeen ñu xilifee ñoom ñoo moom xol yi. ku bëgg a yëngal fitna buñ ne déet nga ba. ku bëgg a yëngal fitna buñ ne la déet nga ba. ki la may jàmm nga nguuru ba doyal. ki la may jàmm nga nguuru ba doyal. lu tax doo ko jox teraanga. lu tax doo ko jox teraanga. bu leen kenn wax nag ne li wax li wax wax lu ko ko. bu leen kenn wax nag ne. lim wax wax loowuñ ko ko. man taalibe laa te taalibe yi lay waxal. moom taalibe la te taalibe yi lay waxal. wéyu maa lekk ñeleñ wéyu maa euh, sim cere lekk. nee na wéyuta lekk ñeleñ wéyuta siim cere lekk. soos ak lu ma ci am la xemale lu mu ci am lekk. dara dérangé ma. dara dérangé ko. waaye paye baay bii. waaye paye baay bii. fokk ñu xormaal ko nag. ñëpp la koy wax. ñëpp la koy wax. yal na yàlla jégal. yal na yàlla jégal yaara bi. yal na yàlla dimbale. yal maa ngi ñaanal ñëpp. ne mu ngi ñaanal ñëpp. di sakku ngeen ñaanal ma. ñaanal ñu. bàyyi rek laa bëgg. ne bàyyi rek la bëgg. yëguma it rek du du duuma sëriñ man. te it dowut sëriñ moom. bay mbay mu ne. bay mbay mu ne. mooy sëriñam. bay. mooy sëriñam. bàyyi bàyyi ne ko yaay magi taalibe yi. bàyyi ne ko yaay magi taalibe yi. ci mujj ak mu ne ñaan leen ma ma dox ak taalibe. ci mujj ak waxam daf ne ñaanal leen ma ma dox ak taalibe. taalibe. taalibe magam taalibe. magam taalibe. kuñ jur doomi taalibe la. kuñ jur kooka doomi taalibe la. su ma doon sëriñ li ma wax sañu ma ko. su doon sëriñ li mu wax sañut koo wax. waaye nañ bokk bëgg seen sëriñ. waaye nañ bokk bëgg seen sëriñ. nañ ko déglu. nañ ko déglu nañ ko topp. nañ ko topp nañ ko liggéeyal. nañ koo liggéeyal. bu ci kenn yàpp. bu bu ñu kenn yab loolu xaay na déedéet dara xaayu ci moo ko wax wasalaam jërëjëf macha allah macha allah nañ bokk bëgg suñ sëriñ bokk déglu ko bokk topp ko wax ji matale ñi nga jiite ay jeunes ci ëpp waaye li ko gàttal mooy ne ki may waxat bu fekkoon ne baat bu ëpp intellectuel am na ma ne moom la kon kàddu gi jóge na fa mu war a jógee waaye nopp bi ko war a dégg dégg na ko te dana ko teg fa mu ko war a teg loolu benn sikki nekku ci jazakumullahu xayran kàddu gi ma nga jëm ci borom alfu salaati bàyyi dafa wax bàjjan yata bàyyi ca gaana ne ko man de dama génn di ñëw waaye dem naa ba suma tànk yi yëgatuma mu laal suuf sayda ne ko loolu lan la bàyyi mu ne ko ci mbedd gaane yi laa doon doxantu rek junney xale lu ëpp junney xale wër naan alfu salaati maa salaami alal habibi te nag bu nekkee ci ziyaara te taarix taarix la mag ñi xasatan sayidi ali nettali nañ ñu nettali ne mas naa ziyaara ji bàyyi ziyaara boo xam ne ca kóosi Seydi Aliou ne na soxla woon nañ ko lool am na boo xam ne itam ba mu ñëwee ba ci euh, Pomme Noiro daf na ñim àndal ñëpp bu kenn war na ñëpp wàcc dox ak seen tànk ndax ñu xam ne ñu sëriñ bi jalal kon wax yi niroo na te benn la kon kàddu gi mi ngi jëm ci xalifa Taïba Niangène di cheikh fadilatu cheikh Moustapha ibnu cheikh euh, alhaaji Omar ñang di doomu sayida bi nga xam ne moo njëkk a taalif ci jigéen ci Afrique ci langue arabe ak ci diine ji Cheikh Moustapha bismillah ah lan may ko wala kii may ko waaw taw taw nañ fi fii baax non donc mënta toog fi

alhamdulillah alhamdulillah alladi lam yattaxid waladan lam yakun lahu sharikun fi lmulk wasalaatu wasalaamu ala kanzi lazami sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain amma baadu حمدا لربي على اللقاء أوفر حظ من الأواني ñu ngi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yont bi ci cant boo xam ne taalibe Baay Ñas cante na ko ci way ci wërsëg gi ñu yàlla defal chance bi ñu am ba taseeg Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara di ci toftal say rak ak say mbokk suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Amin du Mawlana Alxaaj Ibrahima Ñas mu ngi nii toog nit ñi tiitaroo ci sëriñ bi ci xalifa bi ñu ngi tiitaroo lu mel noonu ci rakkam bi ak ci muqaddama bi yi nga xam ne ñoo ko wër di wax ne nag ñun amuñ fi kàddu ndax dañoo togg ak ay borom xam-xam ay suñu nijaay ay suñu kilifa ay suñu sëriñ waaye yóbbante bu ñu la yóbbantee foo nga jotal xalifa euh, Ahmad Bukaar ñang xalifa Tayba ñangeen moo jox kërima gii ndax ku nekk xam na ne baayam bu toogaan fii su mag yi taalibe yi waxee maam Serigne Bay Bay daal ko jox këriba muy maam Cheikh Sëttu di bàyyi xalifa bii nga wax loo fii tey kon démb mooy tay rek ku baax ñu ko waxee du a nangu lu bàyyi mayoon taalibe bi mag yooyu la doom yi ñëw wóyal loolu te loolu moo war am doom mooy bàyyi rek al usiy na al asa hal talidu alxaya illa alxaya bànqaas su ndaw sii mu ngi soqeekoo ci bànqaas bu mag bi kon moom la te jaan itam jaan rek lay kon doomi bàyyi yii buñ fi nekkee ñu ngi jo janoog Mawlana Cheikh Ibrahim ci meloon rawatina nag ñu am ay xulafaa u yoo xam ne moom moo leen yaral boppam jàngal leen tarbiya leen ba nekk taalibe moo leen gënal sax bàyyi suma bàyyi bàyyi suma bàyyi te nag loolu sax sharaf la bàyyi képp koo xam ne daf la jur te ñaaroon ca gayb ne bu ko yàlla maye doom yii day leen tuddee yonent bi ñaanal leen ñaan yim leen ñaanal yónni leen ne leen dem leen jàng jàng leen lépp waaye jëfee leen li baax loolu tax seen xam-xam li muy yaatu yaatu luy jëriñ mbindeef yi luy jëriñ taalibe rekk lañuy wax moom lañuy ñuy def itam xalifa Ahmad Bukaaru nee na bu ngi eesal ab taalibeem ci sa kon moom bu sëggee ñu tëdd nañ bu la neexee sax doxal suñ kaw yéen lañ am yéen yaakaar daanaa ko wax Baye ma Abdou Niang ci feebaram bi génn àddina fekk fi Baye waaye wasiya bi wax ne bàyyi na ko fi wax na ko ca Baye radiallahu taala anhu ne ko man yow laa ci àddina bii fee ba foog ne fa laay jëm itam luy àllaxira yow fa yaakaar awma benn soxla bugguma lu loo bëgg yow waxte wax si yaba su fekkee ne sax am naa soxla da suma doom yi jàng nga jàngal rek te loolu bàyyi ci la nekkoon ci te moom muy fi doomi jigéen yi nga fexe bañ nekk ci néegi sëy am ay boroom kër yu baax ñoo xam ne da ngay yar ci diine ñaari bëgg-bëgg daal am naa ko lu dul loolu yow laa yaakaar fii ci àddina yow laa yaakaar àllaaxira yaay suba kon kooku mooy borom alfu salaati bi loolu maa doon wax léegi ñoom ci li ñuy yar mooy buggu alxaaji Abdoulaye Niass parce que Amadou Boucar borom Taïba Niangène taalibe maam Alaaji Abdoulaye la moo am ay doom yu mag biñ gisatul maam Alaaji te maam Alaaji jox na ci ñoom ñu ngi tafsir Mamar ak alxaaji ma Abdu maam Alaaji jox na leen lijaasa bàyyi xalifa jox na leen lijaasa bi Mawlaana Cheikh Ibrahim ñëwee feeñ ak mbir mi nga xam ne moom la ko yàlla jox nuy borom fay ba ñoom ñëpp omb taat ñëw mu joxaat kenn ku ci nekk ci ñoom lijaasa ñun gis nañ lettre boo xam ne bindi baay bi ñaari kayit la gisuñ bu mujj bi waaye gis nañ bu njëkk ba waaye fa bu mujj ba mate wax ja fa mu daanoo bàyyi wax naa alxaaji ma abdu ko maa ajaztu ahadan qat mosuma lijaasal nit damay lijaasal ñu bëri waaye waxtu wu ma lay jox lijaasa bii diñ ci namoo lijaasa la kenn maa ajaztu ahadan qat kooku teel naa ñëw bi mu ñëwee lu mu fi fekk xam yàlla rek yàlla feeñ ci léppam lallekkam dinaaram te mawlaana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu ma leen sànni ci géej googu moo tax bi may laaj xarit Ahmad Bukaar tey ne ko su ma demee lu may wax parce que kuy yónni itam dimbalee la loo wax daf cay baax bu may waxtaanal ci murid ab taalibe bu baax mu war a mel ma ne kon bu ma ñëwee danaa junj ci murid waaye su ma la jaayee Cheikh Mouhamadul Mahi Serigne Mbaye daanaka li mu wax yëpp ci murid la ko wax parce que buñ yaroo topp Baay radiyallahu taala anhu ci njàngaleem ci yaram ci jikko ay taalibe yu baax la ñu nekk ay murid yu baax la ñu nekk murid nag ki ko soxla di ko ut na dimbali koo dimbali koo xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci li abi Juhayfata ne ko abi abi Juhayfa laajal borom xam-xam yi jaxasoo nga nag xukabaaw yi jaam xikma ne ko saaxibil kubara àndal ak ñu mag ñi ma gis na ñett yooyu yépp mooy jëmmi Alxaaji Ibrahima Niass ndax su fekkee ne dañ ne nañ laaj boroom xam-xam te bàyyi indi xam yàlla xam yàlla moo gën a rëy ci xam-xam kon murid bi dañ na sëriñ xam bàyyi xakim la ndax fu wax da ngay nangu li wax soo ko jiixee ci charia fekk ko ca soo ko fekk jiixee ci sunna fekk ko ca kon bàyyi aalim la xakim la kabiir la te kooku la yonent bi wax bu joxee fata ne ko utal kooku kon ñun daj nañ yëpp ci Baay radiyallahu taala anhu ñu sant yàlla ci loolu wax alhamdulilahi rabbil alamin di sàkku ca mujj ga buñ ca eggee ñu jàng fatiha jiyal ko ci nijaay Alxaaj Barham ak Abdou Barhama ndax ñoom wala nañ bàyyi xaqal te ci seen kilifa lañ jàngee loolu ci loolu lañ làmpee loolu xam nga ziyaar boo demee ci jaamee Ibn Mishri fekk mu ne koo xam ne dañ koo ooyee Abdu Zaati kooku eyonuñu ziyaar ko bàyyi ko xanaa ki ko Zaati man nag nekk jaamam ne moom mooy Abdou Barham kooku xam na maqaama baay xam na ne kuñ war a ziyaare ndax Abdou Zati su Mahmadul Misri waxee ne Abdou Zati dafa eew ñu ziyaare ko te bàyyi ne ah, Barham Abdou Zati pour li xadarati kon yàlla ko oo man ko dugal ko ci pay boobu noonu ba mu ne moom Abdoulaye ci dugg na ci pay bi yàlla bi dagul ci dugg na ci waaye dugal na ci nit ñi képp ku ñëw kon Abdoulaye ci moomu moom la ñuy ziare ni tey ngi ziare koo xam ne moom rek lañ war a ziare yeneen ziare yi nag lu wax ne ziare la waaye lu ci bëri ziare ante na baax na naam waaye kii nag moom moo eew moo abdu naati Baay Ñas radiyallaahu taala anhu doon koo xam ne li si nit ñaa doon wax léegi foo dem ci àddina bi rek da ko fekk bàyyi bu toog fay nga bi toog man maa gën a néew lu ma dox ci pays bi te continent yëpp Australie yàlla ci demul dem naa ay ci Asie ci Afrique ci Europe dem naa Amérique te mosuma dem foo xam ne fekkuma fa ñoo xam ne dañoo naan ci fengo bi ba ca Allemagne ci Berlin wasifa naa fa ci ay waa Turquie ak waa gaana yu fa nekk te ñoom ñëpp naan nañ Cheikh Ibrahim radiallahu taala kon foo dem rek da gis ne bàyyi fa te yàlla rek la fa war dem nañ ci ci ziyaare bu ñu doon defal Babacar Thiam di ko fàttaliku ci buntu këram ci Passy benn shérif ñëw fa li mu commencé waxam mooy billaahi Baay Ñas moo ko yor wax dëgg nag xaw naa reeku waaye bu mu firee xam nañ li bugg a wax moom la moom dafa dox dem na fu bëri ci àddina bi waaye ni ko indi ci bàyyi mooy fu dem rek bu fa laajtee ñi ngànk diine ja dañ koy indil ay muqaddim yi bàyyi kooku nag am am njàngaleem am yaram dëgg-dëgg yàlla kenn mënu koo yàq te kenn waru ko jëme yàq li ñuy xalifa bi doon wax nañ ko dimbalee ci discipline loolu lu am solo ndax léeg nga gis koo xam ne ñeme naa tudd sax mag ñi xaaj Abdoulaye wala keneen ak keneen di jaxase taarixam wallahi yàlla boo may sëriñ bi yar rek ak yërmaane waaye bu waxoon waxambaane yi ci dëkk bii rek ku fi taxawati jëflante ko ak moom wala ñu oo ñu tapp ko yóbbu ko loolu dootu am waaye dafa doonu bàyyam ci xikma wala mawidatil xasana ndax baayam mooy kooku nga xam ne ba ko nit fekkee ca jëppal ne ko dañoo bëgg nga jub ci suñ diggante ak segoor noonu yàlla bi du ci dina ji dara ba pare di dugg ci njëriñ code de la famille jéem a wax julli ñi naka la ñuy takkee naka la ñuy fase xam nga bàyyi des bu noppewoon radiyallaahu taalaa anhu kooku man naan la mbooloom dem nañu xëy ak sego man dañu leen caara doole bi nguur bi amee ñoom amuñ ko waaye bàyyi des la ko dégg borom xam-xam yi ñu ngi waxtaan ak ñoom te mën naa bijji netiija njëriñ te effectivement loolu mooy di am mujj gi sagoor boobu may nañu jàmm ci gis-gisam booba waaye léegi jullit yi ñu ngi def li nga xam ne moom la Baay Ñas bëggoon ndax Baay Ñas daf ne woon moom defu ko te du digal benn mu def ko kon loo gis la rek loo di gis réglé ko ak xikma ak moyna mooy li am solo mooy li gën te sëriñ di xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi waaroo relaaw dégg nañ ko fii jumaa ji ba muy waxtaan ak ñenn ci ñi doon def loolo di tudd kilifa yi ci loo xam ne taxawul amul ay sos su taxutoonoo sax duñ toog ci kanam kilifa yi damay wax ne ay fen ku ko fi man defati na xam ne bàyyi tey la fi gën a nekk comme ni ko Baye Cissé daan wax Baye fi dee mu meex ba ñi ko jege woon wax nañu sax dafa mel ni rokk na mi tur te xam nga lu ko waroon ci Medina bi keroog ñëpp dañ doon dem di tuubi ci néegam di jéggalu ndax ñu gisee ni meeree waaye li ma ca wax ja mooy ji yi xaa xam nga Baye Niass tey la fi gën a nekk Baye tey fi gën a nekk moo tax ku fii dof dof lu da ñu nag am nañ kilifa gu am yërmaane dinañu waat te duñu zajër ñu wax ci loolu alhamdulilah te ubbiyaat yeneen jéegu yoo xam ne mooy jéegu yu gën yi ñenn di doxee ci ñun ñi kon li wax ne sëñ Maaxi yàbbi na suma lañ ci li wax ci topp bi ñu war a fonkee dëkk bi ñu war a gënee suñu bopp ci la jëlee ko ca magam ji radiallahu taala anhu xam-xam nekku fi jaa nekku fi waaye buñ toogee ci bés mel nii nga xam ne suñu maam bi ñoo ko fi taxawaloon ñoo njëkk a defar baay su ci mel ne alhamdulilah Abdoulaye ak maam euh, Serigne Mbaye ak ñi ci bokk ñëpp fekkee woon ko bokk ca su fekkee ne dañoo ñëw seen gannaaw lu ñu doon doon gone te ñoom ñu jur ñu nàmpal ñu yar ñu man daay Cissé moo ma yar moo ma jox wirdu moo ma tarbiya gisuma sama maama xaj maam waaw su ma yaay doon koy gis sa gone la waaye yar bi mu def ci ñun ci ñu war a fonk mag war a fonk kilifa war a fonk suñu sëriñ war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla buñ ci toog di gis sëriñ bi toog ci jumaa ji di yàdd kenn wala di kenn wala di jubanti kenn wax joo xam ne li koy waral rek mooy dafay manqué woon am mag surtout mag moo xam ne nag ah gisuñ ko noonu ci Sénégal bii de gisuñ ko fi gën a baax askan waaw muy cheikh al islam doy na rek ci bàyyi nga radiallahu taala anhu bi muy saxaw ne moom aarifu billaahi la bu saxalee ko ci kooku man su ma bàyyi seedeel la ma ne man aarifu billaahi la su ma bàyyi moomu bët di seedeel la ko ne moom aarifu billaahi la bëdd boobu Mouhamadul Xaafis seedal na ko ne aarif billaahi la boobu naan na ci Cheikh Tidiane ba xam yàlla aarif billaahi la Cheikh boobu kenn du ko wax moom yonent bi sallallahu buntam yonent yi buñ jëlee ci péyeb yàlla bi ak taab yi yëpp ci pay yonent yi kon yonent bi comme xamal yàlla xam nga yonent bi moom kenn dox la xam ne yàlla ndax bàyyi bu lay doxal sax ci maqaamam ñaareel bi ci mbindam wa bil axas sulul akbar daf lay wax ne la téer yàlla ba mooy gëm yàlla rek parce que gëm yàlla nga fay jëlee mooy taqwa te yonent bi sallallahu alayhi wa moom mooy squelette ñaareel mooy dëggu ñaareel foofa nag boo fa eggee itam da ngay xam ne yonent bi neexeewul lu dul ci neexal yàlla alaa min nuurillaahi wal muminuuna min nuur yi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy buntu yàlla te bàyyi dafay wax foofa ne yàlla dafa wax ci alquran ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah kon yàlla yonent bi kenn nee na tàggal damaa fonk yàlla fonk yonent bi amut damaa fonk yonent bi fonk ma Cheikh Ahmad amut damaa fonk Cheikh Ahmad Tidiane ma Baye Niass amut parce que ku ci nekk rek imtidaad la ca kee ca des waaw al awalu yamuddu al axir wal axir yamuddu al awal al zaahiru yamuddu al baatin wal baatin yamuddu al awal waaw lu fa woon mu ngi fi ba léegi comme ni seen eew foofu suñu wax di yëgalu kilifa yi ci kàddu yi nga xam ne sànni nañ ko di fàttali bi di àlla ñax ma wax ñu ñun xamoot nañ ñu ngi si suuf ñu ngi eesal jaayante gi nga xam ne jaayante woon nañ ko daaw ñu ngi koy xeesal itam ren ji yàlla fi yàlla yàggal yàlla yàlla barkeel topp gi yàlla nañ am sa ngërmaane parce que buñ ko amee am nañ ngërmaane bàyyi wa ma dalika ala allahi bi aziz salaamaaleykum wa rahmatullah euh, macha allah kaddu xalifa Taïba Niangène kaddu Kër Ma Abdou kaddu siñi mooy Abdou Zati lañu war a ziyaare kon ñoom kaas ba nga xam ne mooy kaasab antal munaadi wanal mulabbi ca lañ màndee te xiqiwuñ te parewuñoo xiqi ba mukk Cheikh Moustapha jotal ko jotal bu rafet sëriñ bi gën ñu koo dégg kàddu gi nag léegi mu ngi jëm ci farisul maydaan ndax Cheikh Mouhamadul Mahi xalifatu Cheikh Serigne Bay moo wax ne moo dëkkee pey bi jege mbir yi te moom la ñim ko séqat bàyyee leetar bi bàyyee woote bi mu matee ko matal ko waaye kon fi mu ko jëlee soriwut aliyu xadimi xaasiru sirri kaatibi bi tasyini matxi xat ala kulla faixi sëriñ bi imaam dafa ma wax benn kàddu bu mu dégg bu fasaa ci li fi te te indi gaañ yi la dëgg-dëgg moom moo koy wax waaye man fa ma cay em mooy loolu ci moom la jóge mooy dafa am benn waay boo xam ne daf koo dégg mu ne li baay am li yàlla may baay bu ko mayoon sama baay du ma topp baay suma baay laay topp waaye loola baay masu may mayuñ ko benn baay te mayuñ ko benn doom mooy la waxoon ca bam mu yëkkatee kàddoom ca kaw ca kër baayam ne kaay yaa ngi sa borom a ngi ci jàkk ak janoo ci lu dowut benn lënt kenn dootu ko fi defal kenn fii ba bufta bi wol lu moy ku jaar ci ku jaar ci jaam bi mbaa ku jaar ci ku jaar ci jaam bi seydil imaam yaa oo taalibe yi taalibe nañ nan lañ oysee lan moy seeni yaakaar ci pey bi lal mooy li nga xam ne moom la ñuy nekk ci sëriñ bi loolu yow rek yaay ki nga xam ne yaa ko mën a jot alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi imam ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla ne ñu ngi sant yàlla alhamdulilah di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay sahabaam ak yëpp di julli ci ay sahabaam ak waa këram yëpp ak képp ku leen topp ak képp ku topp ñooñu ak képp ku leen topp ak képp ku topp ñooñu ay ngërëmam di ñaan yàlla mu sotti ñu ay pay Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci pay Mawlana Cheikh sotti ko itam ci pay xalifaam. sotti ko itam ci pay xalifaam. Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. gannaaw loolu maa ngi nuyu xalifa bi. gannaaw loolu imaam ne mu ngi nuyu xalifa bi. Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass. Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass. di nuyu rakk ci wetam Ibrahim Niass mboolem seen rakk yi fi teew yëpp ak ñu fi teewut ak mbooleem seen rakk yi fi teew yëpp ak ñi fi teewut di nuyu it mbooleem muqaddam yi ak taalibe yi wax wax bu gàtt rek ne dafay wax wax bu gàtt rek ñoo maa bindoon lettre yi ne moom moo bindoon leetara yi moo doon wax ak nit ñi itam ci rajo moo doon wax ak nit ñi itam pour ñu ñëw motal seen kóllëre yi pour ñu ñëw motal seen kóllëre yi ci ziyaara bi nga xam ne ñoo ko baaxoo woon di ko defal Mawlana Cheikh ci ziyaara bii nga xam ne ñoo ko baaxoo mosta wax na ñëw leen ziyaara si ma mosta wax ne ñëw leen ziyaara si ma ba léegi nii itam ñu fi bàyyi ñu utu ko kenn waxu ci ne ñëw leen ziyaara si ma ba fi bàyyi nii ñu uutu ko kenn mosut cee wax ne ñëw leen ziyaare si ma ci yàlla seen bokk ci yàlla bind fàttali moo leen di bind fàttali leen ne heure bi nga xam ne moom lañ daan def ziyaara boobu jot na. ne heure bi nga xam ne moom lañ daan def ziyaara boobu jot na. ziyaara bi nag dara waralu ko lu may eesal kóllëre. ziyaara dara waralu ko lu mooy eesal kóllëre. ak mbëggeel. ak mbëggeel. ak taalibe. ak taalibe. ak kandoo ci yàlla. ak kandoo ci yàlla. nit ñi fekk na kenn ci ñoom fàttewul loolu. nit ñi. fekk na kenn ci ñoom fàttewut loolu moo tax moo tax ñoom ñëpp ñoom ñépp teew nañ niñ daan teewee fii teew nañ niñ daan teewee ci barab bii am na ñoo xam ne sax daawuñu teew te teew nañ am na ñoo xam ne sax daawuñu teew te nañ dëggal nañ seen bopp dëggal nañ seen bopp ci liñ wax ne ay taalibe lañ ci aju ci baay ci liñ wax ne ay taalibe lañ yoo xam ne yu xaju lañ ci baay fii xadis boobu oustaz Baye Mar jàng sànq xadis boobu oustaz Baye Mar jàng sànq muy xadisu qudsi boo xam ne yonent bee ko nettali jëlee ko ci boromam muy xadisu qudsi boo xam ne yonent bee ko nettali jële ko ci boromam mu wax ne mu wax ne mbëggeelam moom yàlla war na ñeel ñi nga xam ne mbëggeelam moom yàlla war na ñexal ñi nga xam ne dañuy bëggante ci moom dañuy bëggante ci moom di ziyaarante ci moom di ziyaarante moom di ngir moom di jëkki la di ngir moom di jokkalante seen ngir moom seen alal ngir moom mboolem taalibe yi fi teew tey mbooleem tey ñeent yooyu yonent bi tudd jëlee ko ci boromam ñeent yooyu yonent bi tudd jële ko ci boromam sallallahu alayhi wa sallam. diri na sembaanam ci ñoom ñëpp. diri na sembaanam ci ñoom ñëpp. ndax bëgg yàlla rek moo leen fi ndax bëgg yàlla rek moo leen fi. ziyaarante ngir yàlla tax ñu ñëw fi. ziyaarante ngir yàlla itam moo tax ñu ñëw fi. jékki xaale ngir yàlla moo tax ñu ñëw fi. jékki xaale ngir yàlla. moo tax ñu ñëw fii. te ku nekk am na loo jëfandikoo ci alal door a mën a ñëw fii. te ku nekk am na loo jëfandikoo ci alal door a ñëw fii. waaye loolu liñ ciy jële waaye loolu liñ ciy jëlee. mooy mbëggeeli yàlla. mooy mbëggeeli yàlla. te yàlla bu bëggee jaam bi. te yàlla bu bëggee jaam bi. nekk di moom. nekk di moom. wala su ko bëggee def ko muy wëli. wala su ko bëggee def ko. waliwu ñaar yëpp baax na ñaar yëpp baax na sëriñ bi daal mu ngi lay xamal ne taalibe yi sëriñ bi daal imaam ne mu ngi lay xamal ne taalibe yi ñëw nañ eesal seen kóllëre yi ñëw nañ eesal seen kóllëre yi mbaax lañ gis si ñoom mbaax rek lañ gis si ñoom alhamdulilah ak mbëggeel gu mot sëkk saxaaba yi laaj laaj nañ ko bës jëf yi ban moo ci gën. jëf yi ban moo ci gën. ci ron waliyu yàlla lu em ni ñuy rattee gàtt. mu ne mooy nga toog ci ron waliyu yàlla lu xem fu ñuy rattee gàtt. kon mbooleem taalibe yi tey. kon mbooleem taalibe yi tey. am nañ cër boobu. am nañ cër boobu. su nekk rek tey mën ngaa wax ne def nga jëf ji nga xam ne yonent bi nee na moo gën ci jëf. ku ci nekk rek imam ne mën na wax ne def nga tey jëf jooju nga xam ne moom la yonent bi wax ne moo gën ci jëf yi. def nañ li ñu war a def lépp. def nañ li ñu war a def yëpp. te sonaluñ te ko ci yow nga leen bu baax a baax. xam nañ ne boo leen ñaanalee loo leen ñaanal danañ ko am. te xam nañ ne boo loo leen ñaanal danañ ko xam. ci làmmiñu Mawlana Cheikh Ibrahima nga koy ñaanal. ndax ci làmmeñi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci nga leen koy ñaanal te làmmeñ woowu yàlla du ko delloo mu ko xam ngeen ñu ngi sant yàlla nag bu baax ci jëf ji ñu gis ñu ngi sant yàlla bu baax ci jëf ji nga gis ji ñu gis ci jëf ji ñu gis ci zaahir ci ziyaara bi ci bi Seydi Ali waxoon na fii ci ziyaara ne Seydi Ali radiyallahu waxoon na ci ziyaara ne su fekkee ne lu ñu xëndi la sëriñ bi defewu ko dara jaay rek lay xëlbate ko jox leen ko mu ne sëriñ bi li ko ci kontaanloo yëpp mooy gis gim gis ne ñu ngi yëngatu ngir yàlla mu ne sëriñ bi li ko ci kontaanloo yëpp mooy gis gim gis ne taalibe yaa ngi yëngatu ngir yàlla loolu nag ba léegi nii moo fi nekk moom la ñuy gis rek waxtu nekk loolu nag ba léegi moo fi nekk waxtu wu nekk xam nañ ne ba léegi rek yàlla jaral na leen bàyyi dafa wax ne ci benn waxam te bàyyi dafa wax ne ci benn waxam jamono lu mu yàqu-yàqu am na ñoo xam ne waruñ cee bokk jamono lu mu yàqu-yàqu am na ñoo xam ne waruñ cee bokk mu ne ñi ci war a bokk xam nañ ko te ñi ci war ñi ci war xam naa de mooy wax ne man taalibe jël benn ñooñu wax ne man taalibe Baay laa benn manque manque ci yow boppa benn ci yow doo ko mën a lay mukk ëllëg doo ko mën a lay mukk ëllëg fi nga askanu daal fi nga daal comme ci ki gën nga askanu comme ci ki gën nga askanu war ngaa fexe ba nekk nit ku war ngaa fexe yow itam ba nekk di nit ku gën taalibe yi wane nañu seen gëneel yooyu wane nañu taalibe yi imaam na wane nañ seen ngëneel wane nañ ko ngëneel yooyu ñu am wane nañ ko seen ngëneel yooyu ñu am wane nañ ko sëriñ bi dana leen ñaanal sëriñ dana leen ñaanal leen ñaanalee bàyyi moo leen ñaanal te bu leen ñaanalee xamut sikk ne bàyyi moo leen ñaanal bu leen gërëmee itam bàyyi moo leen gërëm bu leen gërëmee itam bàyyi moo leen gërëm moo tax wax jooju man du ma ci xuus xuus bu sori. moo tax imam ne wax jooju moom du ci xuus xuus gu sori. may wax rek ne oo nañ leen ci yàlla ak ci mbaax ñëw nañ def ko ba mat sëkk. dafay wax rek ne oo nañ leen ci yàlla ak ci mbaax ñëw ngeen def ko ba mat sëkk. dara manqué wu ci. dara manqué wu ci. dara wàññeeku wu ci. dara wàññeeku wu ci itam. lépp rek xéewal la alhamdulilah. lépp rek xéewal la alhamdulilah. yal na yàlla saxal loolu. yal na yàlla saxal loolu yaa rabbi. ni ngeen mel nii daal ci baay. yàlla na yokk yàlla bu leen ci anam boobu. yéen yàlla bu leen wàññeeku ci anam boobu. te ziyaar Seydi Aliou radiyallahu wax na ne. ku am xel. am bi rek. da ngay fexe ba am sëriñ bi rek. ndax boo ko amee. ndax boo amee sëriñ. moom mën na te am na. moom mën na te xam na it. boromam te juboo naag boromam. boo ko amee. boo ko amee. am nga lépp loo bëgg. am nga lépp loo bëgg. boo ko amul. loo mën di caakaayoo rek tekkiwul dara. loo mën di caakaayoo rek dara. waaye nañ góorgóorlu ba am ko. waaye nañ góorgóorlu ba am ko. ndax dara faatut ñu. ndax dara faatut ñu. ndax ko uutu ñu ngi fi. ndax ñi ñu ngi fi. mën nañoo amee sëriñ bi ci ñooñu. mën nañu. amee sëriñ. mën taxaw ci loolu taxaw ci loolu digal yi di ko topp digal yi topp di di ko di déglu bàyyi bàyyi yàlla dimbale yal nañu yàlla dimbale yaara bi yàlla aar wattuñu yal nañu yàlla aar wattuñu yaara bi te yàlla nañu dimbale bañ toogaat fii déwén ci jàmm te yàlla nañu dimbale bañ toogaat fii déwén ci jàmm kenn ku nekk kenn ku nekk. yëg ci sa bopp ak dolleeku. yëg ci sa bopp ak dolleeku. ci zaahir ak ci baatin. ak ci baatin. yàlla mën na loolu yàlla nañu ko defal. yàlla mën na loolu yàlla nañu ko defal yaa na waxi ñaareel bi ci tegu. waxi ñaareel bi ci tegu. ci ndigali sëriñ bi la koy waxee. imaam ne ci ndigali sëriñ bi la koy waxee. jumaa ji nga xam ne. jumaa ji nga xam ne. na ci lu nekk. bàyyi. daj na ci lu nekk. mook toppam mook ay toppam ba taxawal ko ba taxawal ko dem nañ ba egsi foo xam ne fi mu ne dem nañ ba egsi foo xam ne fi ne laaj nañu eesalaat ko ba pare yaatal ko laaj nañu eesalaat ko ba pare yaatal ko yokku ko yokku ko ku julli ajjuma ci bisi xew fii ku julli ajjuma ci bisi xew fii eh, ëpp ci nit ñi ci naaj bi la jullee. di nga gis ne li ëpp ci nit ñi ci naaj bi la ñuy jullee. loolu nag li muy tegtale mooy ne war nañoo yokk tabax bi. nag li muy tegtale mooy ne war nañoo yokk tabax bi. ñu ngi séentu ci ku nekk. ñu ngi séentu ci ku nekk. nga def ko muy sa soxla bopp. nga def ko muy sa soxla bopp. danañ ubbi carnet boo xam ne. danañ ubbi carnet. xam ne. képp koo xam ne jumaa ji jaral na la dara. képp koo xam ne jumaa ji jaral na la dara. wala liggéey baay bi jaral la dara. wala liggéey baay bi jaral la dara. dang ca bindu wax ne danaa def nangam. dang ca bindu wax ne danaa def nangam. ndax ndimbal daf ci fekk loxol borom. ndax ndimbal daf ci fekk loxol borom. am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee danañ def lépp. am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee danañ def lépp. waaye nag li nga xam ne moom la bàyyi xalaatoon ci taalibe mi. waaye li nga xam ne moom la bàyyi xalaat. ci taalibeem yi. mooy ne na ko def ak taalibe yi. mooy ne na ko def ak taalibe yi. ñu def ci liñ am ñoom itam. ñu def ci liñ am ñoom itam. jot yool boobu. jot yool boobu. loolu nag waxtoom jot na fi mu nekk. loolu nag waxtoom jot na fi mu nekk. bëgg nañ daal. bëgg nañ daal. jublu ci boobu liggéey. jublu ci boobu liggéey. su fekkee ne ni uyu nañ. su fekkee nit ñi uyu nañ. wane na liggéey boobu jaral na leen. wane na liggéey boobu jaral na leen. sëriñ bi dana joxe waxtu. sëriñ bi dana joxe waxtu. boo xam ne ci lañuy teg première pierre yokk jumaa jooju. boo xam ne danañ ci la ñuy teg première pierre ngir yokk jumaa ji. wër ah, wërsëg la nag pour nit mën cee def dara. wërsëg la nag pour nit mën cee def dara. gis naa bàyyi bind leetar. imam ne gis na bàyyi bind leetar. wax ne. wax ne. jumaa ji kenn du ci bokk ci liggéey bi. jumaa ji kenn du ci bokk ci liggéey bi. wala nga def ci sa alal. wala nga def ci sa alal. lu may koo xam ne yàlla moo la tànnoon ci azal. lu may koo xam ne yàlla moo la tànnoon ca azal. moo tax jumaa ji dafay tànn sax ñiy def. moo tax jumaa ji dafay tànn sax ñiy def. am na ñu am lu nekk waaye seen dara mënu cee dugg. am na ñu am lu nekk. waaye seen dara mënu cee dugg. am na ñoo xam ne li ñu am bëriwut. am na ñoo xam ne li ñu am bëriwut. waaye dañ ko ci doon def. waaye dañ ko ci doon def. ba yàlla egsil ko fi mu egsi nii. ba yàlla egsil ko fi mu egsi nii. loolu nag. loolu nag. moom lañ bëgg a tëjee waxtaani ziyaara bii ci suñ boor. imam ne moom lañ bëgg a tëjee waxtaani ziyaara bii ci suñ boor. am na ay yaakaar yu rëy yuñ ci yaakaar. am na ay yaakaar yu rëy ci yaakaar. ndimbal daf cee war a fekk loxol borom. waaye ndimbal daf cee war a fekk loxol borom. ndax ku ñëw di la dimbale si fekk yow yaa ngi taxaw taxawaay bu wér. ndax ku ñëw di la dimbale si fekk yow yaa ngi taxaw taxawaay bu wér. dana gën a kontaan pour dimbale la. dana gën a kontaan pour dimbale la. loolu daal moom lañ bëgg ñëpp jëmee ci seen itte. imam ne loolu daal moom lañ bëgg ñëpp jëmee ci seen itte. duwut nag lu mën a xaar. duwut nag lu mën a xaar. ku nekk rek. ku nekk rek. li nga ay na pour def ko ci. li nga ay na pour def ko ci. na ko wax. na ko wax. te joxe ko. te joxe ko it. yal na ñu yàlla dimbale. yal na ñu yàlla dimbale yaa rabbi. yal na ñu yàlla defal tawfiq. yal na ñu yàlla defal tawfiq yaa rabbi. ndax liggéey ci juma. ndax liggéey ci jumaa yonent boo tabaxalee yàlla lu am ni fii bi tax di boofee. yonent bi nee na muy boofee. fu muy boofee. mu ne yàlla tabaxal la njënd ci aljana. mu ne yàlla tabaxal la njënd ci aljana. ci jumaa ji. Baye Mbaye mu Baye. Baye Mbaye mu Baye. mu ne joxe na téeméeri junne. mu ne joxe na téeméeri junne ci jumaa ji. dana ko bind ci carnet. imaam ne dana ko bind ci carnet. teewal dana la ko indi teewalal la ko. waaw mu ne dana ko teewal léegi. mu ne dana ko teewal léegi. Papa Mahdi mu moom bind na million dana ko joxe. Papa Mahdi Niass mu ne moom bind nañ ko bindal million dana ko joxe. bàyyi xalifa mu sëriñ Maaxi. bàyyi xalifa mu sëriñ Maaxi. moo nekk ci poosam bi mu ne li nekk ci poosam yëpp joxe na ko. mu ne li nekk ci poosam yëpp joxe na ko nii. mu ne du ko emale foofu. mu ne waaye du ko emale foofu. Aline Diop ne 500000 bu jotaay bi tasee mu andi ko. man loo leen wax yéen. Njaay Rahma. Mon Njaay Rahma. mu ne wax dana joxe Mon Njaay Rahma mu ne wax na ne dana joxe cent millions. Mon Njaay Rahma mu ne wax na ne dana joxe cent millions. ah. cent mille. cent mille. deux cent xalifa bi mu ne deux cent. oustaz Baye Mar. mu ne bind na mu ne deux cent mille dana ko joxe. mu ne bind na dina joxe deux cent mille. Abdoulaye Cissé mii mu ne dana joxe téeméeri junni. Abdoulaye Cissé mii di doomi imam ne dina joxe cinq cent mille. Amadou Boucar Niang. Amadou Boucar Niang. mu ne dana joxe un million. mu ne dina joxe un million. Cissé dem mu ne dix millions. Cissé Deme mu ne dina joxe dix millions. Cissé Deme mu ne dina joxe dix président président Cheikh Cissé Diosone mu ne ñu bind ko 2 millions. Cheikh Cissé Diosone mu ne ñu bind ko 2 million. jabari Modou Ndiaye Rahma. ñu koy wax ina ñu koy wax ina dem. mu ne ñu bind ko un million. mu ne ñu bind ko un million. waaw. Bachir ñu bind ko cinq mille. Bachir ñu bind ko cent cinq mu imam. xalifa Cheikh Serigne Mbaye Mouhamadou Mahi. xalifa Cheikh Serigne Mbaye Mouhamadou Mahi. Ibrahima Cissé mu imam ne dina joxe six cent ñu bind ñi bindu. imam la ñu bindu nag. ñëpp rajo nañu xam na rajo baa ngi ko jël. Ah. ak presse bi. ah. sang Ndiaye mu ne. sang Ndiaye sang Ndiaye mu ne dina joxe juróomi ne dina jox cent mille. Seydi doomi Baye Mbaye Cissé. Seydi Seydi Cissé doomi Baye Mbaye Cissé. mu ne dana joxe un million. mu ne dina jox un million. Cheikh Moustapha Niang. Cheikh Moustapha Niang. mi doon wax léegi. mi doon wax léegi. mu ne dina joxe cinq cent mille. mu ne dina joxe cinq cent mille. doomi xalifa bi Cheikh Mouhamadou Mahi ne dina joxe un million un million Aadi Dawra mu ne dina joxe un million Aadi Dawra ne dina joxe un million ana Salisu Aadi Salisu Salisu Mohamed Salisu Abdoulaye Ahmad Mahmoud Turquise. mu ne nga bind ko 100000. waaw Ahmad Mahmoud. Mohamed Mahmoud Turquise ci Mauritanie. Turquise ci Mauritanie 100000. Omar Diop doomi Alaaji Jibril. Omar Diop doomi Alaaji Jibril. ci taalibe yi. ah ci taalibe yi laa wax. waaw man ci taalibe yi laa bokk. maa 50000. Pape Ndiaye Pape Niang Dakar. Mor Thiam Dakar nee cinquante mille. Mor Thiam Dakar mu ne un million. Mor Thiam Dakar mu ne un million. ah. million biir ah. biir da ngay soog a jëli ah. ah. am gama. Sadio am na suñ na am na suñ gan nekk fii. ñu koy wax koy wax alaaji Salisu. mu ne dana joxe juróomi million. mu ne juróomi million. ci Dakar mu ne un ci Dakar mu ne waaw. Baye Lamine un million. Baye Lamine un million. waa Kër Papa As. waa Kër Papa As. ñu ne danañ joxe cinq millions parce que mu ne danañ ci teg million muy six millions. ñu ne danañ joxe cinq millions. bas mu ne dina ci teg. bas mu ne ci bas mu ne dina ci teg un million muy six millions. Serigne Daara Mañaan Serigne Daara Mañaan dina joxe cent mille. ak kan. mooy di moom Assane. mu ne dina joxe un million. Baye Mbaye mu Cheikh Mohamed Nazir. Baye Mbaye mu Cheikh Mohamed Nazir ne dina joxe ñaar. un million. dix millions. Babacar. Bilane Sary ñaata la wax. cent mille. bu ne cent mille. Babacar Thiam Fayda Tidiane. uñ imam bu dégg ëpp na loolu. war naa joxe dopp loolu. xam naa ko Wilane Sane maa ko xam. xar xam naa ko dama ko xamata. allo. Mouhideen mooy Mame Assane un million. ñaata laa lay waxal. Cheikh Baye Hadi mu ko cinq millions. Cheikh Baye Cheikh Cheikh Baye mu ne ko cinq millions. Baye Sakho kër kër sëñ Mamoun. Binta. Sëti Maam Binta. mu ne ñu bind ko dix millions. Ousmane Diop Dubaï. Ousmane Diop Dubaï. ak euh, Bachir Papaas ah. mu ne ku nekk cinq cent mille anañu al Ousseynou al Ousseynou di Troy Ousseynou di ci di Troy Ousseynou ci di Troy mun ñu bind ko cinq cent mille mun nañu bind ko cinq cent mille waa Ousmane Diop El Hadj Ousmane Diop Banjul. El Hadj Ousmane Diop Banjul. mën nañu bind ko un million. mën nañu bind ko un million. nit ñi nag nañ xam ne yi leen di bind nii. nit ñi nag nañu xam ne yi leen di bind nii. lu mën nekk. dowut loo xam ne lu mën a nege la. dañ koo yàkkamte ndax ñu gaaw jublu ci liggéey dañ koo yàkkamte ñu teewal ko ndax ñu gaaw jublu ci liggéey bi. képp ku ci bindu daal. képp ku ci bindu daal. na nga fexe. na nga fexe. fii ñaari weer nga teewal teewal li nga bindu lépp. fii ak ñaari weer nga teewal li nga bindu lépp. ndax ñu mën leen a jox date bi nga xam ne ci lañ koy commencé. ndax ñu mën leen a jox date bi nga xam ne ci lañ koy commencé. bàyyi. Baye Niass mu àll. mën nañu bind ko un million. bind ko un million. Ibrahima mu ne dina joxe cinquante mille na dix mille. Cheikh Bara Thiam muqaddami sëñ Maay Cissé ne deux cent mille. Wilane Sané dolli cent mille. mu ne mu ne nga Mohamed Cissé mu Imam Hassan. Mohamed Cissé mu Imam Hassan. mu ne cinq mu ne cinq millions. mu ne ah yow sa affaire passé na loolu. waaw passé na loolu kay. allo dund naa deux millions joxe naa deux cent mille. allo. avance nga deux cent mille da nga joxe deux millions. waaw danaa joxe yéen deux millions. baax na waaw. mu <laughs> ne joxe na deux cent mille dina joxe deux millions. Wilane Sani. teewal na deux cent mille. mu ne teewal na deux cent mille dina joxe deux millions. baax na Cheikh mu Dame Mahmoud. Cheikh mu. Papa Dame Mahmoud. Papa Dame Mahmoud. mu ne dina joxe deux cent mille. mu ne dina joxe deux cent mille. Ousmane Thiam domaine mu ne trois cent mille. Ousmane Thiam domaine mu ne mille Aliou Kanté mi jaay parfum mu ne deux cent mille dana ko teewal léegi mu ne un million imam yow ñaata mu ne ñaata Moustapha Adjali Moustapha Adjali Adjali Ndeye Fatou Ly Adja Ly moo la ko bind ko un million. Ndeye Fatou Ly mun nañu bind ko un million. as doomi Sidi. as doomi Sidi. mu Papa Dam. 500000 mu ne 500000. Cheikh Aliou Ndiaye. Cheikh Aliou mun nañu bind ko ñaata. un million. mun nañu bind ko un million. Baba Lamine Samb mu ne cent mille. Baba Lamine cent mille. ah. imaam ñu ne ñu wax yëpp ñu koy harcelé su wax fii yëpp. ci ñuy joxe ñu ngi ko portable. suñ paree danañ teg portable bi topp ko kenn par kenn. Moustapha Sidi Arab recopier liste bi ci foyer. Moustapha Sidi Arab. Moustapha Sidi Arab. mun nañu bind ko 5 millions. mun nañu bind ko 5 millions. barakallah annoncé nañ ko jërëjëf yal na ko yàlla. ah yombalal rek mun ko. ñaata Assane Cissé. Assane Cissé Koutoumi. Assane Cissé Koutoumi. 250 000 250 000. alaaji alaaji Pape Moustapha Mahi 2 millions. maam alaaji mu Pape Mountakha mu ne 1 million. maam alaaji mu Pape Mountakha mu ne 1 million. Moustapha Mahi 2 millions. Moustapha Mahi 2 millions. Ousseynou Papa Ousmane Fati 2 millions. mu Papa Ousmane Fati 2 millions. imam mu moom ñu bind ko te doo am foofu nag. mu ne ne du am foofu du ma am foofu de. imam mu ne. vingt millions yooyu mu wax ne nañ ko ko bind. du fa xem de. Seynabou Ndiaye ñu suñu baabu daalu. waaw mu jox la un million te wala cinquante mille. Seynabou Ndiaye yaay Mouhamad yaay Mouhamad Gueye. Seynabou Ndiaye waaw yaay Mouhamad Gueye. Seynabou Ndiaye yaay Mouhamad Gueye. joxe na un million. joxe na un million. waaw teewal na cinquante mille.

imam kan imam Moussaïda Assar mu ne un million. imam Moussaïda Assar mu ne un million. ñu ngi leen di déglu de ak ñan. allah danañ ñëw rek maire Taïba Niassène Habib. waaw un million cinq cent. maire Taïba Niassène Habib Niass. maire Taïba Niassène Habib Niass. Habib un million cinq cent. mu ne ñu bind ko un million cinq cent. Ba Omar Ñang Ba Omar Ñang doomi Safaaw mus ak Moustapha Ñang mu ne ñu bind ko cinq cent mille Alassane Diop Alassane Diop ak Lamine Mbow allo

oo nañ la ci lii ñuy wax. Cheikh Ibrahima Cissé daa may. Cheikh Ibrahima Cissé. doomi Cheikh Mahi Cissé mu ne ñu bind ko cinq cent mille. sotti ko. Aadi Neema. Aadi Neema. bi ci Dakar. mu ne école am bi ci Dakar. dina joxe cinq cent mille. Moustapha Diankha cinquante mille. Moustapha Diankha cinquante mille. allo. Baye Niass Dakar allo waaw. Moustapha Baye Niass Dakar. Baye Niass Dakar. waaw. kan la Moustapha mu ne ñaata. Moustapha Diagne mu ne vingt cinq millions. Moustapha Diagne mu ne vingt cinq millions. Moustapha Adiali. Moustapha Sidi Arab. waaw Moustapha Sidi Arab mu ne vingt cinq mille la wax. vingt cinq millions. mu ne dafa juumoon waxul cinq millions vingt cinq millions la wax. Aline Diop indi na cinq cent mille am. waaw mu ne Moustapha Diallo mu ne heure buñ ci heure boo ko soxlaa mu jox la ko. boo soxlaa vingt cinq millions yi mu jox la ko. waaw imam ne vingt millions yi soxla na ko léegi vingt cinq millions yi soxla na ko léegi na ko indi. mu ne soxla nañ ko altine altine. oustaz soxla na ñaar. Cheikh Tidiane Thiam ci Kolda. 500000. Abdou Gueye London. London. Abdou Gueye London. 200000. joxe na 200000. Moustapha mu Sëriñ Maay. Rida Rida mu Sëriñ Maay. un million deux cent Macky mu sëñ mu ne ñu bind ko un million waxal waxal waxal Omar Niass moo ko joxe ci law nañu seen. imam mu ne lañ teewal. waaw ah. deux mu des trois cent mille. ah nii de. ah trois cent cinquante mille Nourou Karo Karo. Nourou Washington. imam Konté ci Dakar. imam Konté ci Dakar. mu ne ñu bindu. Ousseynou Fall. Washington. un million. Roqeeta Baye mu Papaas. di soxna imam Cheikh. mu ne ñu bindu un million. jigéen ñi dégg ngeen. Omar ca Amérique. Fat Dem mu ne dina joxe un million. ah Fat Dem Fat Dem mu ne dina joxe un million. Omar Thiam doomi Kéba ak Fat ci Amérique. mu ne dina joxe cinq cent mille. Cheikh Ousmane Dakar Dakar HLM. Cheikh Ousmane HLM. Cheikh Ousmane Touré Dakar ci HLM. mu ne ñu bind ko cinq cent mille. waaw Oumou Souleymane Cissé doomi imam un million. Oumou Souleymane Cissé di doomi imam mu ne dina joxe un million. Abdoulaye Mahi mu ne un million cinq cent. Abdoulaye Mahi mu ne un million cinq cent. waaw. waaw. non waaw. Cheikh Tidiane Niang. cinq cent mille. Mohamed Sousial moom moo jaarax ma mu ne cinq cent mille. Mohamed

daayira ruhul adab bu oustaz Mohamed Ndaw daayira ruhul adab oustaz Mohamed Ndaw bu oustaz trois cent mille ca Dakar mu ne ñu bind ko un million te ci yem Modou ca Dakar mu ne waaw Moussa Diallo waaw nga ut benn waaw jëlal ñu ko ci carnet boo xam ne dañ topp ku nekk li wax na ñu dama danañ jël nga def danañ fexe am seen téléphone. Ah. def ko ah. dajale bi ba ci kanam. ñu taay ku ah. mu. Euh, Mbaye Mbaye nee ñaari million Euh, Seydil Imam jazakallahu xayran oo nga taalibe yi taalibe yu oysi nañ wax nga xalifa bi ne ko oysi nañ oyu bu rafet beesal nañ kóllëre yi beesal nañ yaakaar yi euh, Seydi alxalifa fi mu ne dañuy continuer kàddu gi lañuy jox sëriñ bi ñu muñ ba loolu pare waa déedéet imaam ne na nañ continuer ziyaare bi kuy bindu na bindu euh, sayidil xalifa ah teewal na genn wàll gi waaw baax na Seydi mu sëñ waaw léegi ñu may ñu imam mu ne ñu continuer ndax xalifa bi moo war a wax ndax euh, li ñuy teg yépp mën naa daje ci moom waaye fi ne ziyaara bi mu ne dañ koy continuer ndax kàddu gaa ngi jëm ci xalifa bi ñu may ñu ñu ne Seydil Imam jazakallahu xayran yow yaa méngoo woon woote bi woote nga yaa xam ni ñu oysee wax nga ko xalifa bi waaye ñun fi ñuy joxe xalifa bi kàddu mooy da nga wax ne Seydi dafa wax ne bàyyi li ko gën a neex ci ziyaara bi mooy yëngatu bi nga xam ne moom la jaami yàlla yëngatu ci kanamam ci bëgg yàlla mu def ci ñoom ci yàlla kon sëriñ bi euh, loolu la sa baay bëggoon mu teg ci ne sëriñ bi ku jubóog boromam la yow sa baay moo la wax ne merewuma la te duma la mere te daf ko wax daf koo bind kon yow ku jubóog sa sëriñ nga ku jubóog sabaay baay nga sa waxoon na la itam ne ñaanoon na yàlla bu fekkee da nga jëriñ umma bi nga ñëw tuddee sa bopp xaadimul umma tey nag li fi daje mooy ñii di siyaare yaakaar ju réy jooju ñu am te fiñ ko yaakaaree imaam ne na amut sikk ne liñ indi ci aajo soo leen ñaanalee baay moo leen ñaanal te baay ñaanam du dégg maa ndax nee na ma xattu euh, euh, euh, mësuma jógee suma borom tàllal ko loxo dellu ak loxoy neen kon ñu fàttali jaam yàlla yëpp ne jotaay bi njabootu cheikhul islam mi ñuy ziyaare ñi ngi fii sayidi mouhamadul amin mi ngi fii sayidi mouhamadul mahdi maa ngi koy seen sayidi bay mbayang fii doomi seen bay tax yaa ngi fi sayidi aliou borom 2 millions yaa ngi nii toog kilifa yu bëri ñi fi ah seize deux millions cent monsieur le ministre maa ngi koy seen nii sëriñ bay kon nag sëriñ bi yow mi ñu waxoon ne yàlla nga ñëw jëriñ xeet wi te sa baay wone ne juboo naag yow ndax ne na merewu la te du la mere imaam ne na gaayaa ngoog ak seeni aajo bismillah asalaamaaleykum wa aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. ñu ngi sang yi nekk ci mbaar mi yépp sang yu góor yi ak sang yu jigéen yi. sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi. yu mag yi ak sang yu ndaw yi. di leen bégal di leen ñaanal yàlla. sang. ndax dëgg-dëgg sang. mooy ku def li ngeen def tey. mooy ku def lii ngeen def tey. jógee fu nekk ci Sénégal. fu nekk ci Sénégal. ak feneen fu dul Sénégal. ak feneen fu dul Sénégal. te dara tax ngeen ñëw lu dul mottali kóllëre. kóllëre. googu ñuy mottali. sang rek moo ko mën ko mën def. tax ñoom la yàlla di taggee ci alquran. moo tax ñoom la yàlla di taggee ci alquran. anna alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almisaaqa walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab walladina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan wa yadrauna bilxasanati sayyi'ata ulaika lahum uqba daar jannaatu adnin yadxuluunahaa sang rek mooy dugg aljanna. sang rek mooy dugg aljanna. te yàlla nee na ñii mottali kóllëre. yàlla nee na ñii mottali kóllëre. mu ne ñooñu aljana la leen di yóbbu. bu ko defee ñooñu danañ mën yóbbu seeni baay. bu ko defee ñooñu danañ mën yóbbu seeni baay. seeni doom. yóbbu it seeni doom. seeni ay xame. yóbbu seeni xamee ki seeni kóllëre loolu mooy sang loolu mooy sang te tey yàlla digg nañu ko ci jëf yu mel nii rek ci lañu ko digee ci jëf yu mel nii ci lañu ko digee jëf yi lu ko lal yi lu ko lal mooy mottali kóllëre xam ne jaar na suñu digganteeg suñu way dawe daan toog fii ak xam ne kóllëre goo xam ne kóllëre goo xam ne jaar na jaar na suñ diggante suñ diggante ak suñu woy dawe yi daan toog fii ci mbaar mi ci mbaar mi bàyyi fii bàyyi fi bàyyi fi liggéey bu yem nii ci àddina liggéey bu xem ngeen di gis ci àddina àddina bi yëpp nangu ko àddina bi yëpp nag nangul leen ko àddina bi yëpp ñëw di ko seet àddina bi yëpp ñëw di ko seet si kóllëre googu kóllëre googu moom lañuy ñuy sàmm. ci biir sàmm kóllëre googu. ci biir sàmm kóllëre googu nag. yàlla may nañu ci yàlla may nañu ci ay xéewal yu bëree bëri. yàlla may nañu ci ay xéewal yu bëree bëree bëri. may nañu ci ñuy daje julli ajjuma. may nañu ci ñuy daje julli ajjuma. ñu daje julli ajjuma. ñu daje julli ajjuma. julli ajjuma liñ ci wax yéen ñëpp xam ngeen ko jarul salaat. te julli ajjuna julli ajjuma yéen ñëpp xam ngeen liñ ci wax jarul firi. yàlla may nañu ci. yàlla may nañu ci. Médina am ay gan. Médina am ay gan. yu jógee fu nekk. yu jógee fu nekk. ñu ganale leen. ñu ganale leen. xam ngeen li ñu wax ci ganale gan. xam ngeen li ñu wax ci ganale gan. boo ganalee benn gan ganale nga li ko dalee ci moom moom ba ci boo ganalee benn gan ganale nga li ko ci moom moomu nga ganale ba ci Adama. teraanga teraanga ji yàgg na ba foofu. bési tey bii. yàlla may nañu loolu ci bési tey bii alhamdulilah. yàlla may nañu. yàlla may nañu. ci teraangaam. ci teraangaam. bési tey bii. bési tey bii. ñu gëj a gisante gisante nañ. ñu gëj a gisante tey gisante nañ. ñu namante gisante nañ. ñu namante woon lool. tey namante nañ. te namm nit gis ko. te namm nit gis ko. nga xool ko mu xool la. nga xool ko mu xool la. ay bàkkaar yu bëri yàlla dana ko ci dana ko dana ko far. ay bàkkaar yu ci bëri yàlla dana ko ci far. dajee joxante ay loxo. dajee joxante ay loxo saafu wante. ubbi sa kanam. ubbi sa kanam. yàlla nee na dina ci baal bàkkaati ñeent fukk. yàlla nee na dina ci baal bàkkaati ñeent fukk. ñeent fukki at ñeent fukki fan ñeent fukki fukki at ñeent guddi ñeent fukk ñeent fukk yàlla xam. yonente firiwu ko borom xam-xam yi itam dañu firiwuñu ko. yonente firiwu ko borom xam-xam yi tamit firiwuñu ko. waaye faddu nañ. waaye faddu nañ. ba wax ci liñ ci wax yëpp. ba wax ci liñ ci wax yëpp. teraanga boobu yàlla may nañu ko ci tey bii. teraanga jooju. yàlla may nañu ko ci bési tey bii alhamdulilah. bokk na ci teraanga yi yàlla may nañu. bokk na ci teraanga yi yàlla may nañu. ñu daje fii ci ron tante bi. ñu daje fii ci ron tante bi. ba léegi. ca ngoon ba léegi. dara dajale dara dajalewuñu wuñu. lu dul bëgg yàlla. bëgg yàlla. ak bëgg dellu ci yàlla ak mbëggeel. ak bëgg a dellu ci yàlla ak mbëggeel. ndax mbir yëpp mbir yëpp ci mbëggeel rek la bàyyeekoo. ndax yëpp ci mbëggeel rek la bàyyeekoo. yàlla nee na. ndax yàlla nee na. man dama nekkoon di mbóot. man damaa nekkoon di mbóot. moo xam ne kenn xamu ko. moo xam ne kenn xamu ko. ma bëgg ñu xam ma. ba ma bëggee ñu xam ma ci laa bind mbindeef yi ci lañ ma xamee ci lañ ma xamee bon ci mbëggeel lañ bàyyeekoo ci yàlla bon ci mbëggeel lañ bàyyeekoo ci yàlla waaye itam bu ñuy dellu ci yàlla mbëggee rek la ñuy dellu waaye bu ñuy dellu itam ci yàlla mbëggeel rek la ñuy dellu moo tax ñi ñu jiite yar ñu moo tax ñi ñu jiite yar ñu liñ ñu gën a yaree liñ ñu gën a yare mooy looy def nga def ko ci kaw cofeel rek mooy looy def nga def ko ci kaw cofeel rek. ngir yàlla ngir yàlla. ndax boo ko defee ci cofeel te yàlla nekku ci. ndax boo ko defee ci cofeel te yàlla nekku ci. nga rek la. loolu perte rek la. boo ko defee ci cofeel ngir yàlla. waaye boo ko defee ci cofeel ngir yàlla. mooy dénk nga sa dénk nga sa yëf yàlla. mooy ne yow dénk nga sa yëf yàlla. na dama la te yàlla nee su boobaa dama la koy fuulal. yëpp may nañu ko ci bi. loolu boobu yooyu xewal yépp yàlla may nañu ko ci bés bi yàlla may nañu ci bés bii. yàlla may nañu ci bés bii. lépp loo xam ne taggee na ko jaamam. lépp loo xam ne taggee na ko jaamam. yàlla may nañu ci bés bii ñun ñëpp def nañ ko tey. yàlla may nañu ci bés bii ñun ñëpp def nañ ko tey. mooy gëm yàlla. mooy gëm yàlla. ci faddu. ci faddu. mooy gëm yonent yi. mooy gëm yonent yi. mooy gëm téere yi. mooy gëm téere yi. mooy julli. mooy julli. mooy topp yàlla. mooy topp yàlla. mooy li la yàlla wërsëgal nga dindi ci joxe ko ngir yàlla. mooy wërsëg wi la yàlla wërsëgal nga dindi ci di ko joxe ngir yàlla. yàlla mu ne ñooñu ñooy ñan. yàlla mu ne ñooñu ñooy ñan. mooy ñi nga xam ne danañ dem aljana. mooy ñi nga xam dem aljana. te loolu yëpp jikkooy sang rek la. te loolu yëpp jikkooy sang rek la. sang mooy dem aljana. ku dul dem aljana. ku dowut sang doo dem aljana moo tax sang ci jullit rek la mën a génne moo tax sang ci jullit rek la mën a génnee euh, li ci des nag àddina rek la waaye àddina koy dundee nu la neexee li ci des nag àddina rek la ne naa ko dundee nu mu leen neexee wama hadihi alxayatu dunia illa lahwun wa lahibun wa inna daara alaxirata la hiya alxayawaanu law kaanu yaalamun àddina ka ay caaxaan rek la àddina ay caaxaan rekk la. ci ngeen ci dund ba dee ci. ci ngeen ci dund ba dee ci. waaye li nga xam ne dund buy des nag. li xam ne mooy dund buy des nag. mooy bañ jëm ëllëg ci àllaaxira. mooy bañ jëm ëllëg ca àllaaxira yal na yéex. ba sang yëpp jëm ci seen kër yi. ba sang ci seen kër yi. matt yi ñu yóbbu leen safara. matt yi yal nañu ci yàlla musal. sëriñ bi mu ne ngi ñii. daje si nañ beneen yoon. ci ñu daan daje. ci barab bii ñu daan daje. ngir jàngataat suñu bopp. ngir jàngataat lan lañ mën a jëriñ ci suñ jamono. ngir jàngataat lan lañ mën a jëriñ ci suñ jamono. ngir jàngataat. ngir lan lañ mën a xam ci suñ jamono. lan lañ mën a xam ci suñ jamono. mu dimbale ñu ci suñ jamono. ñu mu dimbale ñu ci suñ jamono. bañ mën a ànd ak moom. mën a ànd ak moom. jàngat yëpp. liñ mën a xalaat ci liñ mën a jàngat yëpp. mooy ñu seet suñu bopp ñun lan lañ. mooy ñu seet suñu bopp ñun lan lañ. dëgg-dëgg li gën a feeñ mooy ñun ay pauvre lañ amuñ dara. dëgg-dëgg li gën a feeñ mooy ñun ay pauvre lañ amuñ dara. te pauvre nag yàlla waxu ne nangu ko daf ne la xeexal ko. te pauvre yàlla waxu la ne nangu ko déedéet daf ne la xeexal ak moom dindi ko. ngay xeex ak yëpp may na la ko. moyen yi ngay xeexee ak sa yëpp yàlla may na la ko. may na la xel. may na la xel. la xam-xam. may na la kattan. may na la kattan. may na la ay pexe. may na la ay pexe. ndox muy jógee asamaan. may na la taw ndox muy jógee asamaan si. may na la suuf mu lay saxalal. may na la suuf mu lay saxalal gàncax. mu des nag loolu yëpp nga jëriñoo. mu des nag yow effort booy def pour teraanga jooju yëpp nga jëriñoo ko. ndax boo ko jëriñoohee. ndax boo ko jëriñoohee. da nga gis ne. da balaa yàgg. balaa mën loo xam ne yaakaaroon nga ne mënta soppeeku. mën ngaa soppi loo xam ne yow yaakaaroo woon na lii <clears throat> mën naa soppeeku. te bu ñu bëggee soppi nag. te bu ñu bëggee nag. al fokk ñu dellu ci suñ bopp. ci suñ bopp. ñun ñun lu ñu xam xamaguñ dara. réew mu ndaw. réew mu ndaw. boo xam ne du réew bu am boo xam ne du réew mu am industrie. du am sax commerce bu rëy rëy rëy comme yi nga xam ne sans frontière amuñ ko. du am sax commerce bu rëy rëy boo xam ne compagnie. sans frontière sans frontière yi amuñu ko. dañ koy gént rek amuñu ko. dañ koy gént rek amuñu ko. te loolu yëpp. mu ci loxo nit ñi. mu ci loxo nit ñi. bu ñu ko jéemee góorgóorlu rek bu ñu ko jéemee góorgóorlu rek xam ko. waaye. waaye. bëgg a tabax sa réew bëggoo koo tabaxee liggéey. bëgg a tabax sa réew bëggoo a tabaxee liggéey. lu dul gouvernement bi baaxut. gouvernement bi baaxut. gouvernement bi bonut. waaye ñun ñoo ko wanut ne. sa sa lii nga am soxla nañ ko. sa lii nga am soxla nañ ko. su ko boobaa dana ko. gouvernement sañu te seetaan peuple muy góorgóorlu mu bañ cee dugal loxo. gouvernement sañu te seetaan peuple muy mu bañ cee dugal loxoom. al fokk gouvernement dana ci dugal loxoom par force nag. waaye boo liggéeyut bëggoo liggéey. bëggoo liggéey. pare foog na yëf yëpp wax rek ak génn ci mbedd mën na koo régler. ba pare nag foog na yëf yëpp wax ak génn ci mbedd mi ak mer mën na koo régler. mënut koo régler. li ko mën a régler mooy ñun ñii. ñun peuple bii. ñun peuple bii. ñoo mën a xam lan lañ am. ñoo mën a xam lan lañ am. ak naka lañ ko mën a exploité. ak naka lañ ko mën a exploité. pour jëriñoo ko. pour jëriñoo ko. pour génn ci pauvreté. pour génn ci pauvreté. bu ñu sooboo rek dëgg-dëgg. balaa juróomi ngay gis ne mën nañoo sax. balaa juróomi balaa juróomi at da nga danañ gis ne ndekete yoo mën nañoo xëpp Sénégal. mën nañ fee indi alal. mën nañ fee indi alal. ndax alal a ngi fi. alal mooy lan. yàlla may nañu suuf. may nañu ndox. may nañu xale yu ndaw yu bëri. may nañu xale yu ndaw yu am kattan yu bari mag yu am expérience. may nañu ay mag yu am expérience. may nañu ay mag yu mën a diriger réew. may nañu ay mag yu mën a diriger réew. ay borom xam-xam. may nañu ay boroom xam-xam. waaye loolu yëpp bu ñu dafay yàqu rek. waaye loolu yëpp suñu amut yar day yàqu rek. te war nañoo yaru. war nañoo yaru. Sénégal dafa war a yaru. surtout Sénégal dañoo war a yaru. ndax yàlla moo leen teral kon dañoo war a xam teraanga yàlla jooju leen yàlla jagleel. ñu jëfandikoo ko ci seen biir. ñu jëfandikoo ko ci seen biir. ku nekk jox sa morom cër ak respect. ku nekk jox sa morom cër ak respect. Cheikh Cissé nettali na ma. imaam Cheikh Tidiane Cissé sëriñ bi ne nettali na ko. dafa ñëw fekk ci saalu baayam. dafa ñëw ci saali papam fekk. nuy baayam ak ñaari loxo jox ko ñaari loxo ñeneen ñi mu jox ko benn loxo nekkim toogatoon mu jox ko benn loxo lii nga def lan la mu ne ko lii nga def mooy lan yar dafay matale yar dafay matale waaye doo ko emale fenn waaw da nga maa ragal rek wala nga am bëgg ci man. mu ne ko da nga maa ragal rek wala nga am bëgg ci man. te ñaar yooyu dara baaxu ci. te ñaar yooyu dara baaxu ci. bëgg bëgg nit. bëgg nit. tax nga yaru ci kanamam. tax nga yaru ci kanamam. wala yaakaar ko. wala yaakaar ko. tax nga yaru ci kanamam. tax nga yaru ci kanamam. loolu du yar. yar lay doon. yar yow lay doon. yar mooy civilisation. yar mooy civilisation. mooy xam nooy jëflanteeg say morom. mooy xam nooy sa say morom. nooy jëflanteeg borom xam-xam yi. nooy jëflanteeg borom xam-xam borom alal yi. nooy jëflanteeg borom alal yi. te te jàmmu amu ca. jaamu amu ca. te jaamu amu ca. nawleeg nawle rek moo fa am. nawleeg sa moromi nawle rek moo fa am. ci façon boobu. su ko defee ci façon boobu. danañ mën a ànd dimbalante. danañ mën a ànd dimbalante. ñun ñooy dimbale suñu gouvernement. ñun ñooy dimbale suñ gouvernement. suñ gouvernement delloo si ndimbal gi ci ñun. suñ gouvernement delloo si ndimbal gi ci ñun. fekkee nag sa gouvernement dimbale ko. su fekkee nag. yow citoyen bi dimbale woo sa gouvernement. ba pare bëgg mu mu dimbale la. ba pare bëgg mu dimbale la. ah loolu mënta nekk loolu mënta nekk xam ngeen. dimbal gi dafay réciproque rek ñu dimbal gi daal loxol kajoor la day weesaloo. te nag baadoolo. te nag baadoolo. mënta mënta mel ak gouvernement nen. mënta mel ak gouvernement nen. carte yaa ngi fi gendarmerie yaa ngi fi borom fetel yaa ngi fi borom karawaas yaa ngi fi. yooyu yëpp alkaati yaa ngi fi gendarmerie yaa ngi fi borom fetel yaa ngi fi borom karwaas yaa ngi fi ñooñu ñëpp kaso yaa ngi fi kaso yooyu yëpp dara jaru ko te boo amee discipline rek amul dara looy dox te doo ko am dara looy dox te doo ko am waaye boo amul discipline nag boo amul discipline te li ci gën a metti te li ci gën a métti. da foog ne yow borom xam-xam nga. da foog na yow borom xam-xam nga. da foog ne yow intellectuel nga. da ngay foog ne yow intellectuel nga. da ngay foog ne yow mat nga mat nga mat nga ni tubaab bi mat. da ngay foog yow mat nga li tubaab bi mat. fekk da ngay nax sa bopp rek. fekk da ngay nax sa bopp rek. matagoo nen. matagoo nen. boo ñëwee sa réew rek da nga xam ne matagoo nen. boo ñëwee sa réew rek da nga xam ne matagoo nen. su fekkee Dakar rafet na ba mel ni fanaal. su fekkee ne Dakar rafet na ba mel ni fanaal. boo ñëwee ci Kaolack gii. bu nawet jotee doo am foo jëm. bu nawet jotee doo am foo jëm. doo mën a génn sa kër. doo mën a génn sa kër ndax tooyaay. mbedd yu bon mbedd yu tooy. mbedd buuj bon mbedd yu tooy. boo demee marché doo bëgg dugg. boo demee marché jën doo fa bëgg a dugg. ba pare te ne sol nga sol nga casquette nga t-shirt sol jiin ba pare na yow pays bu développé nga sol nga casquette sol nga t-shirt sol nga jiin nekk nga hamburger nekk nga hamburger naan nga coca cola nekk nga naan nga coca cola foofu la affaire bi yem la affaire bi yem te loolu ndesiti jàmbur rek la te loolu ndesiti jàmbur rek la ci yow yow defaroo ko. te mën nga koo defar nag. te mën nga koo defar nag. mën ngaa ràbb t-shirt. mën ngaa ràbb mën ngaa defar casquette. mën ngaa defar casquette. mën ngaa lekk hamburger. mën ngaa lay bàyyeekoo. te ci yow lay bàyyeekoo. suuf lay bàyyeekoo. te ci suuf lay bàyyeekoo. te sa xel lay bàyyeekoo. sa doole lay bàyyeekoo. sa doole lay bàyyeekoo. pourquoi pourquoi roy roy roy roy rek. lu tax waaye yow ngay roy di roy di roy rek. te àggagoo ci ñi ngay roy. te àggagoo ci ngay roy. seenoo leen sax. seenoo leen te doo leen dab. bon nag bon nag. buñ bëggee tabax suñu réew. buñ bëggee tabax suñu réew. ni ma ko waxee. sëriñ bi ne comme ni mu ko waxee. il faut ñu am discipline yar. il faut ñu yaru. il faut ñu yaru. il sàkk lu baax. il ñu sàkk lu baax. il faut ñu xam ne xaw yépp yàlla la neex mu xam. waaye doom lu neex yàlla rek yàlla bëgg na ko. waaye doonut lu neex yàlla rek yàlla bëgg na ko wax nañu ne ndam wax nañu ne wala yarda li ibaadi al am yëpp ci man la waaye li am yëpp ci man la waaye kéeféer nam d'accord ma ci gërëmuma ko bon nag am na lum d'accord gërëm ko bon am na lum d'accord gërëm ko waaye am na loo xam ne d'accord ku gërëm waaye am na loo xam ne yàlla d'accordu ci te gërëmu ko it te loolu nag bokk na ci. jàng jàngulu te jàngoo. di jàng jàngulu te jàngoo dara. xam-xam te xamoo. di xam-xam lu te xamoo dara. ba pare nag bëri wax nag. yaa gën a bëri te fekk na yaa fi gën a bari wax. borom xam ragal wax. te boroom xam-xam moo gën a ragal wax. balaa ubbi gémmiñam dana ko xelaataat xelaataat ko xelaataat ko. lii génn sama gémmiñ fu mu jëm ak lu ci bàyyee lii génn sama gémmiñ fu kaddu gi xem ak fu mu bàyyee ak lu ci mën a bàyyee koo. ak lu ci mën a bàyyee koo. loolu yëpp borom xam-xam bi dana ko sóoraale balaa wax. surtout génération bu ndaw bii màgg si. surtout génération bu ndaw sëriñ bi na ngeen jàng. bu leen jàngantu. bu ngeen jàngee xam-xam ñëw rek ngeen soppi seen réew def réewu xam bu leen jàngee xam-xam ñëw rek ngeen soppi seen réew def ko muy réew ak xam-xam. tubaab yi technologie rek la ñu rawee. tubaab yi technologie rek lañ ñu rawee. bu ñu amoon technologie rek léegi ñu mel ni moom. bu ñu amoon technologie rek léegi ñu mel ni tubaab bi. waaye rawewuñ ñu leneen. waaye rawewuñ ñu leneen. du philosophie. du philosophie. du histoire. du histoire. du du loi. rawewuñu dara. rawewuñu dara. yëpp rawewuñu fa. foofu yëpp rawewuñu fa. bu ñëwee fii ci suñ daara yi ñu jàngal leen ko. bu ñëwee fii ci suñ daara yi ñu jàngal leen ko. wala ñu jàngal leen ko façon boo xam wala ñu jàngal leen ko ci façon boo xam ne ñoom xamuñu ko. xam mooy xam ndax xam-xam xam ngeen ne xam-xam rek lay firi. jaay jaaree ko fii jaaree ko fii jaaree ko fii ci xam-xam rek jaaree ko fii jaaree ko fii jaaree ko fii yëpp bu ci man di doon ci xam-xam rek la la jëmee. te xam-xam bu ñëwee rek def njëriñ. te bu ñëwee rek def njëriñ. am xale ba ki dem ñëw ca kër ga. sëriñ bi ne dafa am ay xale yu ñëw barki dem fële ca këram. wàcceel ma lu mat fukki kees. wàcceel ko lu mat fukki kees. lii gerte la gerte gu ñu dëbbale gi gerte gi defar lu bëri bëri. benn kees gi. gerte gu dëbb la basaab xonq basaab bu weex. basaab bu xonq basaab bu weex. yu bëree bëri. yu bëree bëree bëri. sëriñ bi sa wàll ci tool baa ngi. ñu indil ko ko ko sëriñ bi sa wàll ci tool baa ngi nii. mu ne lii nag. mu ne lii nag. mu ne yaa wax ne nañ dem seeti lu ñu suuf dencal. mu ne yaa wax ne nañ dem seeti lu ñu suuf dencal. seeti nañ ko lii la ñu jox. ko la ñu suuf dencaloon. te ku gis ku gis seen liggéey boobu rek. te ku gis seen liggéey boobu rek. da nga xam ne. da xam ne. lu nekk mën nañ ko dañ koo jéemut. dañoo jéemut dara. dañoo jéemut dara. ba pare bëgg a mel ni ñi jéem. ba pare bëgg a ni ñi jéem. dañuy roy rek dañuy roy rek. sol t-shirt casquette lekk sol t-shirt sol casquette lekk hamburger dama bëgg foog yaa rey gay dégg fekk yow demoo fenn. loolu yëpp. mën naa dindee ko ci suñ kaw. mën naa dindee ci suñ kaw. ak nouvelle bi. ak nouvelle génération bi di màgg si. di màgg xam nañ ne ñoom dootuñ nangu la la lañ nangu woon. te xamuñ ne dootuñ nangu la ñële nangu woon. li passé yëpp dootuñ ko nangooti. li passé yëpp dootuñ ko nangooti. al dañ ko jéem a soppi. al foog danañ ko jéem a soppi. waaye bu ko soppee violence baaxul. waaye bu leen ko soppee ak violence ndax violence baaxul. ko soppee yàq seeni jikko. bu leen bu leen ko soppee yàq seeni jikko. ñàkk ñàkk am discipline. ñàkk am discipline. ñàkk mën a wax ak nit ñi. ñàkk mën a wax ak ñi. dal sa gouvernement di saaga. di dal sa di dal sa gouvernement di saaga. loolu yëpp amul benn njëriñ. loolu yëpp amul benn njëriñ. nañ seetlu am njëriñ def nañ leen seetlu am njëriñ ñu def ko. parce que loolu yëpp lu ndax loolu yëpp lu mu lay indil. mooy politicien bi yab rek di la waxtu la soxlaa rek takk la mbaam war ko ba xolam sedd rek moo ci bàyyi. mooy politicien bi yab la rek waxtu wu la soxlaa rek takk la mbaam jaabal la ba yàlla may la jàmm mu wàccee la. Ah, yow yàlla la may jàmm moom la di may jàmm. moom moomu lay jaabal nag la yàlla di may jàmm. bu ko defee mu fàtte la nag. loolu yëpp indiscipline moo koy andi. ñàkk yar ñàkk teggin. te loolu war nekk ci koy sénégalais. ndax sénégalais yi jiitu. ndax sénégalais yi jiitu. ci senegal ci Sénégal. def nañ kéemtaan Sénégal. def nañ kéemtaan fii ci Sénégal. muy waa daara ji muy waa école bi. muy waa daara muy waa école bi. ñoom def nañ seen góora. ñoom ñëpp def nañ seen góora. bàyyi nañ loo xam ne. bàyyi nañ loo xam ne. mën nañ koo roy. mën nañ koo roy. ba tabax suñu senegal tabax bu gën a kawe boobu. mënta kawe sax mënu koo gën a kawe sax waaye ñu yokk ci daal. mënu koo gën a kawe sax waaye ñu yokk ci daal. déjà xas nañ teg. ndax déjà xas nañ teg fondement bi. yëkkati rek moo ci des. yëkkati rek moo ci des. waaye ana xale yi koy yëkkati. ana xale yi koy yëkkati. mooy xale yi di rey seen ci mbedd. mooy xale yi di rey seen bopp ci mbedd mi. mooy xale yi politiciens yi di discours rek ñu seen dara tàng rek ñu jóg buur. mooy xale yi politiciens yi di discours rek. seen deret tàng ñu jóg buur lu leen neex ñu def ko lu leen neex ñu def ko loolu baaxut nañ leen seetaan ñi nga xam ne buñ ci jaaree buñ ci jaaree fileeg juróomi at danañ soppi suñu réew danañ soppi suñu réew xale yi danañ am xaalis xale yi danañ am xaalis danañ mën a takk jabar danañ mën a takk jabar xale bu mën a takk jabar defe naa amul sax waaye fi mu ne xale bu mën a takk jabar defe na ne amul sax doo ko sa baay mayut doo ko am bu la ko sa baay mayut doo ko xam ndax situation yu jafe situation yu jafe yi situation compliqué yi bu baayam bàyyilut kër bu baayam bàyyilut kër bu ëllëgee doo am fu dëkk ndax complication yu jafe yi ci Sénégal ndax complication yu jafe yi ci Sénégal kon ñun ñëpp Sénégal Sénégal peuple ak gouvernement. war nañoo jàngat suñu bopp ñun ñëpp. xamaat suñ bopp bu baax a baax. xamaat suñ bopp bu baax a baax. su fekkee ne bëgg nañoo tabax suñu réew. su fekkee ne bëgg nañoo nekk ay vrai patriote. am na neneen luñ koy nekkee. am na neneen luñ koy nekkee. mooy. mooy. jéem a joxe. jéem a joxe. xale bi ma joxee loolu. sëriñ bi nag xale yi biñ ko waxee biñ ko joxee loolu. mu ne leen lii mooy xam-xam. xam-xam dafay joxe résultat. xam-xam dafay joxe résultat. xamul fu seen jàng toll. waaye lii ngeen def mooy xam-xam. loolu mooy xam-xam nag. dafay jur njëriñ. day jur njëriñ. du làkk du wax lakk rek ak euh, tari ay test ak. Euh, du waxi làkk rek ak jàngi discours ak i tari test. loolu du xam-xam. loolu bibliothèque la rek. heure bu nekk nga génnee ko. mu ngi fees ba bëgg a dee. mu ngi fees ba bëgg a dee. boo ko fekkoon di lakk foofa du bouger. waaye boo ko fekkoon foofu di ko lakk du bouger. ay wax ndax ay wax rek la. nañ sàmmaat suñu bopp ci suñu Sénégal gi. sëriñ bi ne leen sàmmaat suñu bopp ci suñu senegal gi nañ góorgóorluwaat ci suñu Sénégal gii. nañ ci suñu Sénégal gii. nañu bëgg suñu Sénégal gii. fonk. nañu fonk suñu réew mi. parce fonk na ko. ndax yàlla fonk na ko. génneel fi ay góor ñoo xam ne. génneel nañu fi ay góor ñoo xam ne. fu nekk lañu àgg ci àddina bi. fu nekk lañu àgg ci àddina bi. fu nekk la seen njëriñ àgg ci àddina bi. fu nekk la seen njëriñ àgg ci àddina bi. te kooku sa la. te kooku sa maam la. suma maam la. suma maam la. maami kii la ñun ñëpp ko bokk. patrimoine la pour ñëpp pour ñun ñëpp. patrimoine la pour ñun ñëpp. ñun ñëpp a ko bokk. kenn gënu ci kenn. kenn gënul ci ay bi nga xamee ne yàlla benn jaam gënu ci ay benn jaam gën te ay ci yàlla moromu bi nga xamee ne benn jaam gën te ay yàlla ci moromu jaamam. naka noonu itam. naka noonu itam. kenn gën fii itam kenn gënta ay ci ñoom. ñii itam ñëpp a leen bokk. topp ci liñ tëral rek. topp ci liñ tëral rek. topp ci liñ topp ci liñ jàngale rek. topp ci liñ jàngale rek. bu boobaa dëgg-dëgg mën nañoo def lu bees. bu boobaa dëgg-dëgg mën nañoo def lu bees. ñu ngi wax waxi jéem a jumaa ji. sëriñ bi ne mu ngi wax ñu ngi wax waxi jéem a yokkaat jumaa ji. ne dafa am benn bés. ñuy julli ji tàkkusaan ne mu ngi ànd ak baay radiyallahu anhu bi ñëwee ba romb tirbin bi baay dal di ko lëng ci mbagg jumaa ji ma tabax yëpp wala ma bàyyi leen ci lu ngeen yokk ne ko maahi jumaa ji ma tabax yëpp wala ma bàyyi leen lu ngeen ci yokk kenn xamul ñii la kenn li ñuy wax lan la bu jotee rek mu feeñ dimbale yaaram yi sëñ Maahi wax na ko ci waxam sëñ Maahi wax na ko ci waxam xuloo wuñoo kenn xuloo wuñoo kenn tontuwuñu kenn tontuwuñu kenn saagawuñu kenn saagawuñu kenn ku ñu saaga duñ la tontu ku ñu saaga duñ la tontu waaye ñu ngi ci ñu liggéey di ko liggéey rek waaye ñu ngi ci li ñu war a liggéey di ko liggéey rek duñ tooñ kenn duñ tooñ kenn duñ uteeg suñ gouvernement duñ uteeg suñ gouvernement duñ bay duñu bañ oppos opposant yi. duñu bañ opposant yi. waaye bëgg nañ nag discipline. waaye bëgg nañ nag discipline. am bu amee rek mën nañoo régler suñu problème. amee rek mën nañoo régler suñu problème. réew mi ñoo ko bokk. benn gaal la ñun ñëpp ci nekk di ko joow. ñëpp nag ñoo war a kër ci kon ñun ñëpp ñoo war kër ci gaal googu. bàyyi intellectuel intellectualisme nangam ak nangam. te bàyyi intellectuel. kii académicien inti naan kii académicien la ak yu kenn xamut. seen wax la ñoom du ñun ñun àggaguñ foofu ñun mbay ak bay tool bi naaj bi. yooyu yëpp seen wax la ñun àggaguñ foofu ñun bay lañ xam liggéey. ba ba àgg fi nga xam ne. investir ci suñ doole ba ba ñuy àgg fi nga xam ne. foofu fu nekk lañ jaar ba la ñoo àgg si fii. ñoom ci seen bopp fu nekk lañ jaar ba la ñoo àgg fii. boo demee foofu baykat yi ñoo fay buur. boo demee foofu baykat yi ñoo fay buur. faale wuñ président bi. faale wuñ président bi. faale wuñ ministre bi. parce que ñoom sax la ministre bi di faale ak ak ak ak président bi. ñoom sax la ministre bi di faale ak président bi. ñoom ñoo am xaalis bu toog. ndax ñoom baykat yooyu ñoo am xaalis bu toog. ndax xaalis ku ne xam na ne dafay dund. xaalis boobu ku ne xam na ne dafay dund. di dundal laat ci nit kon nañ leen ut xaalis ci suñu réew. nañ leen ut xaalis génne ko ci suñu réew. te mën naa am buñ ko utee. yal nañ ci yàlla dimbale. ñu tabax suñu réew ak suñu bopp. ñu tabax suñu réew ak suñu bopp. ñu ñu tabax suñu suñu lépp loo xam ne dañ ko war a tabax. ñu tabax suñu lépp loo xam ne lii dañ ko war a tabax. ñu ñu ñu góorgóorlu ci suñu xale yi jàng am xam-xam. ñu góorgóorlu ci suñu xale yi jàng am xam-xam. ñàkk xam-xam ba pare ñàkk xam-xam ba pare ne maa maa wax. ñàkk xam-xam ba pare ne maa fi dàq wax di ratatati rek. yàq rek lay loolu yàq rek lay andi. yàlla may xam-xam. yal xam-xam bi. xam-xam boo xam ne danañ ci a liggéey. pour suñu réew. pour avenir bii ñëw si. pour avenir bii di ñëw si suñ kanam. suñ doom yaa ngi ñëw gisaguñ leen. suñ doom yaa ngi ñëw ak suñ sët yi gisaguñ leen. suñu sët yaa ngi ñëw gisaguñ leen. suñu sët yaa ngi ñëw gisaguñ leen. ndax loolu tere na. ndax loolu tere na. nga am responsabilité. nga am responsabilité. xam ne ci ñoom la jëm. xam ne boo xam ne ci ñoom la jëm. al foog ñu bàyyi ci xel. yal na ñu yàlla dimbale ñu bàyyi ci xel yaara bi. ñu ngi ñaan suñ gouvernement. ñu ngi ñaan suñ opposants yi. ñu ngi ñaan suñ opposants yi. ñu ngi population bi. ñu ngi ñaan population bi. nañ xam nañ nekk nit ñu nañu nekk ay nit ñu discipliné. ndax ñu mën a tabax. ndax ñu mën a tabax société bi. ndax ñu mën a yokk. ndax ñu mën a yokku. maa ngi wax waxi tool baay. sëriñ bi de mu ngi wax waxi tool baay. dëgg-dëgg nit ñu bëri kontaan nañ ci. dëgg-dëgg nit ñu bëri kontaan nañ ci. am ñu bëri ñu ci seen. ndimbal gaa te te commencé guñ. am na ñu bari ñu ci def seen ndimbal gaa te commencé guñ. comme Adé Adé Da xaw ma. ban. Hmm? ban hmm? kii la Anida Anida Anida. comme Anida. def na ci ndimbalam lu rëy rëy rëy. def na ci ndimbalam lu rëy rëy rëy. am na ñu bëri ñu naan dañ ciy def seen ndimbal. boo amee ni ñu koy ndax boo amee niñ ko imaginer. ak niñ ko bëggee. xale yi dootuñ dem fenn liggéey foofu la ñuy liggéeyee. xale yi dootuñ dem fenn liggéey foofa la ñuy liggéeyee. ndax lu nekk mën nañ ko faa bay génne ko fa. nekk mën nañ ko faa bay génne ko fa. Hmm. président bi ma toogee moom. sëriñ bi ne bi mu toogee président Macky. mu ne lu ngeen di bay. mu ne ko lu ngeen di bay. mu ne ko lu suuf mën a génnee rek. mu ne ko lu suuf mën a génne rek. loolu lañ bëgg a bay. amuñ ci gerte gi amuñ ci dugub ji. gerte gi amuñ ci dugub ji lu suuf mën a génnee rek bëgg nañ koo bay. te suuf suuf soosu ñu ko jox nit ñi fële. pourquoi duñu ko jox fii. te suuf soosu ñu ko koy jox nit ñi fële pourquoi duñ ñu ko jox fii. pourquoi duñu bay pomme pourquoi duñu bay raisin pourquoi duñu bay. pourquoi duñu bay pomme wala raisin pourquoi duñu bay ay fruits. ay orange pourquoi yooyu duñ ko bay. ay orange ak yooyu lu tax duñ ko bay te mu ngi fi. waaye colonisateur yi baaxuñu. waaye colonisateur yi baaxuñu. yàqal nañu suñu réew. yàqal nañ ñu réew. yàqal nañ ñu lu bëree bëri. yàqal nañ ñu lu bëree bëree bëri. su fekkee defaral nañ su fekkee ne defaral nañ ñu it. ci côté. waaye li ñuy yàqal moo gën a bëri. waaye li ñuy yàqal moo gën a bëri. te mën nañ koo dabaatal nag. yal nañu yàlla dimbale ñu dabaatal ko yaara bi. ñun ak suñu gouvernement. ñu ànd liggéey. suñu réew. ci wóoluwante. ci bëggante. ci bëggante. ci bañ a xeebante. ci bañ a xeebante. kii jàng na kii jàngut. kii jàng na kii jàngut. li gën a métti nag. li gën a métti nag. ñoo xam ne jàng nañ. mooy ñoo xam ne jàng nañ. ñoo leen ngeen ay analphabète ngeen. ñu ne ñooñu ay analphabète lañ. parce que arabe lañ jàng ak alquran. parce que arabe lañ jàng ak alquran. ay analphabète lañ. ñu ne ay. ay analphabète. analphabète lañ. xamuñ xamuñ dara maanaam ay nit ñu xamul dara lañ yéen rek a xam nag. te pourtant ñoom ñi xam nag kenn kenn gisul lu ñu def nag. te pourtant ñoom ñi xam kenn gisul lu ñu def. Sénégal 60 ans ngi nii d'indépendance. 60 ans ngi nii indépendance du Sénégal. kenn gisul dara. kenn gisul dara. loo xam ne dañ ko tiitaroo. ne sama réew moo ko def ci àddina ne sama réew moo ko def ci àddina bi. te pourtant war naa mën a ne. intelligence bi nekk ci Sénégal. intelligence bi nekk ci sénégalais. dafa benn naar. dafa am benn naar. Ah, om d'affaires yu mag yooyu la dëkk. homme yu mag yooyu la dëkk Dubai. bi mu jegee projet tool bi. bi mu déggee projet tool bi. ñëw ci man. mu ñëw bi. di waxtaan ak man. di waxtaan ak sëriñ bi. ne dama bëgg a seet naka la ñuy def pour dimbalante ci tool. ko la ñuy def pour dimbalante ci tool boobu. ma ne parce que ñun dañoo tayal te yéen nit ñu active ngeen. sëriñ bi ne ko ñun du ngeen mën a dimbalanteeg ñun parce que ñun dañoo tayal te yéen nit ñu active ngeen. mu tayalu leen da ngeen a gisul lu ngeen liggéey. mu ne ko tayalu leen da gisul lu ngeen liggéey. ndax sénégalais yi ma gis ci tool yi Italie ak Espagne xale yu sawar lañ. ndax sénégalais yi ma gis ci Italie ak yi. te bëgg rek ñu sawar lañ. moo leen dem. te bëgg am rek moo leen taxa dem. te loolu mën nañ koo toxal si fii yal nañ si yàlla dimbale yaaro bi yal nañu yàlla dimbale ci suñu yaaro bi mu baax mu baax mu jëkk sénégalais bu nekk tiitaroo sénégalais bu nekk tiitaroo sinam sénégalais loolu mën nañ koo am loolu nañ koo xam bi muy génn àddina ñàkkut ci Sénégal parce que ku wax ne wa ubrisu lil jiilil jadiidi misaala kooku ñàkk ko yaakaar génne nouvelle génération ku wax ne dinaa génne nouvelle génération boo xam ne danañ xam li ñuy def boo xam ne danañ xam li ñuy def kuy wax loolu yaa ñàkkoo yaakaar ci sa kuy wax loolu ñàkkoo yaakaar ci sa réew yal nañu yàlla dimbale ñu suqat suñu réew. Cheikh Mahi ci discours am bu tedd bi. sëriñ bi ne mu ngi gërëm Cheikh Mahi mu maam sëriñ Mbaye ci discours am bu tedd bi fi def sànq. mu ngi gërëm Moustapha. mu ngi gërëm ci seen discours yu tedd yi. ci discours bu tedd bi fi def. bu kawe bi. bu kawe bi. bu xam-xame bi. bu xam-xame bi. bu dogu bi bu dogu bi bu bëgg jàngale bi bu bëgg a jàngale bi bu bëgg a oote jëmee ci liggéey bu bëgg a oote jëmee ci liggéey bi loolu rek loolu rek mooy affaire bi loolu rek mooy affaire bi yal na leen ci yàlla dimbale yal na yàlla dimbale ñu ñun ñëpp yaara bi bañ gis suñ senegal bokk ci bañ gis suñ senegal bokk ci bu baax nañ ci war bu baax niñ ci war a bokkee ñun ay analphabète lañ comme ni ñu waxee ñun ay nan alphabet lañ comme niñ ko waxee. waaye doonuñ ko de. waaye doonuñ ko de. ay jàngkat yu mag lañ. ay jàngkat yu mag lañ. ay borom xam-xam yu mag lañ. ay borom xam-xam yu mag lañ. Cheikh Ibrahima mii. Cheikh Ibrahima mii. du analphabète. du analphabète. Cheikh Omar Tall doonu ko. Cheikh Omar Tall doonu ko. Cheikh Ahmadou Bamba doonu ko. Cheikh Ahmadou Bamba doonu ko. Cheikh Hadj Malick si doonu ko. Cheikh Hadj Malick doonu ko. te ñoo fi xeex a xeex a xeex a xeex ba lii des fi. te ñoo fi xeex a xeex a xeex a xeex ba lii des fi. te li ko jar moo taxoon ñuy xeex. te li ko jar moo taxoon ñuy xeex. bon. Euh, technologie rek moo fi ne. technologie rek moo fi ne. amuñ ko. amuñ ko amaguñ ko. amaguñ ko. waaye su fekkee dara su mooy xam téere yi rek. waaye su fekkee ne dara su fi lu dul xam-xami téere yi rek. ñii jàngee ko nii ñii jàngee ko nii rek. ñii jàngee nii ñii jàngee nii rek. werantee di wax rek. werantee di wax rek. te yemuñ fenn. nañ taxawaat nañ taxawaat suñ bopp nañ seetaat suñ bopp. suñ gouvernement bi nañ taxawaat seetaat suñ bopp. suñ gouvernement bi nañ taxawaat seetaat suñ ñun gouvernement. ñun ak suñ gouvernement. seet naka ñuy la ñuy génnee ci li nga xam ne kenn xamul la. ñu seet naka la ñuy génnee ci li nga xam ne kenn xamut lii lan la. te lu nekk mën naa am nag. te lu nekk mën naa am nag. boo gisee nit ñu ñëw fii tey. boo gisee nit ñi ñëw fii tey. boo gisee nit ñu mën a muñ ñii toog. boo gisee nit ñu mën a muñ ñii toog. nit ñu mën a déglu ñii toog. nit ñu mën a déglu ñii toog. yaakaar ñii toog. nit ñu am yaakaar ñii toog. koo bëgg mën ngaa tabax lu bees. koo bëgg mën ngaa tabax lu bees. yépp dogu rek la. ndax lépp dogu rek la. yàlla bu baax. sëriñ bi ne mu ngi ñaanal yàlla bu baax. indi mbir na jii. li ñu tey jii. yal nañu ko yàlla defal. yal nañu ko yàlla defal. ñun góor ak jigéen. ak ndaw mag ak ndaw yàlla na yëpp itam ko yàlla defal Sénégal yëpp am lu bëgg luy dolli luy yëkkati luy kaweel luy yëkkati loolu yàlla may yal nañu yàlla may am na benn programme bu ñuy préparé bu ñuy préparé mooy baraam yi nga xam ne mooy baraam yi ñuy yi nga xam ne moolu jumaa ji yëpp ñoo moolu jumaa ji yëpp mool ñoo ko tabax ñoo ko ñoo ko yëkkati. ñoo ko yëkkati. am na ñu bari ci ñoom dem nañ génn nañ àddina. am na ñu bëri ci ñoom génn nañ àddina. ñoo xam ne ñu ngi fi. am na ñoo xam ne ñu ngi fi. dañ leen a bëgg a defal benn bés fii ci Mérina. dañ leen a bëgg a defal benn bés fii ci Mérina. teraangal leen. teraangal leen. won leen ne fàttewuñ démb. won leen ne fàttewuñ démb. Hmm? waaw waaw waaw après. ci ziyaara dugub bi lañ ko bëgg a def. ci ziyaara dugub bi lañ ko bëgg a def. ku bëgg a ñëw fekkee ko. ku bëgg a ñëw fekkee ko. ndax baram yooyu Baye wax na ci ñoom wax yu rëy rëy. ndax baram yooyu Baye wax na ci ñoom wax yu rëy rëy. def nañ def nañ njàmbaar gu nekk. def nañ njàmbaar gu nekk. mooli jumaa ji yëpp ñoo ko mool. mooli jumaa ji yëpp ko mool. ba dañ daan tabax. ba pare te dañ daan tabax. lu nekk def nañ ko ci jumaa ji. kenn waru leen a fàtte. kenn waru leen a fàtte. kon nañ leen fàttale euh, waxtu wu nekk. nañ leen fàttale ko waxtu wu nekk. nañ leen fàttale ko waxtu wu nekk. xemem di leen xemem loo. di leen dëgëral. di leen dëgëral. waaye ñu liggéey liggéey bu mag bi dem rek ñu fàtte leen. waaye ñu liggéey liggéey bu mag bi rek dem ñu fàtte leen. dëgg dëgg. loolu du sawarloo nit ci liggéey. loolu du sawarloo nit ci liggéey. dañ a bëgg màggal ci bés moo tax dañ leen di bëgg a màggal ci bés boobu. ñaan ñaan gouvernement bi wala maire bi. ñaan gouvernement bi wala maire bi. tali bii romb ci buntu jumaa ji. tali bii romb ci buntu jumaa ji. ñu tuddee ko baraam yi. ndax ñoo ko moom yal nañu yàlla dimbale ñu ngi gërëm Pape Demba bi tey mu ngi fi yàgg a toog ak ñun ñu ngi gërëm monsieur le ministre Serigne bay Thiam ci teewaayam ci bokkam ci yéeneem ci bëgg lu baaxam ci bëgg a defar lu baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax. sëriñ Mahi waxoon na ne ci biir waxam. sëriñ Mahi waxoon na ne ci biir waxam. gouvernement bi yónnee wu fi ay officiel ci tey bi. gouvernement bi yónnee wu fi ay officiel ci biir ci bésu tey bi. waaye officiel yaa ngi nii toog. waaye officiel toog. ministre ngi nii toog. ministre ngi nii général ngi nii toog. directeur général ngi nii toog. ñoo fi gën a màgg. ñoo fi gën a màgg. ñun ñoo ñu ñëw toog ak ñun. dañ ko def ci seen volonté dañ ko def. ndax dañ ko def ci seen volonté wala dañ ko def ci yeble. lu ci nekk rek lu mat la. lu ci nekk rek lu mat la. ndax suñ gouvernement réew lañ jëmmal. ndax suñ gouvernement réew lañ jëmmal. yal na leen yàlla fay. gis seen liggéey. gis seen liggéey. yokku leen. yokku leen. ci zaahir ak ci baatin. yal na ko yàlla yal na ko yàlla dimbale. yal na ko yàlla dimbale. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen. barkeel seen liggéey. yal na yàlla barkeel seen liggéey. ba ngeen génne ñu ci Sénégal gu jafe gii. ba ngeen génne ñu ci Sénégal gu jafe gii. surtout Sénégal Kaolack moom. surtout Sénégal yi Kaolack moom. Kaolack moom dafa mel ni bokkut ci Sénégal. bu nawet ñëwee kenn ci yéen mënu fee dugg. loolu yëpp dañoo bëgg mu jeex. te mën naa jeex. yal nañu ko yàlla jeexalal. beneen liggéey bu gën a mag. imaam Cheikh Cissé def na ko fii. imaam Cheikh Cissé def na ko fii. xam na liggéey. xam na liggéey. xam na liggéeyee xam-xam. xam na liggéeyee xam-xam. liggéeyuma ay sentiment. liggéeyuma ay sentiment. ay xam-xam laay liggéeyee. ay xam-xam laay liggéeyee. defal am indi. am indi. defal defal jël. defal jël. defal jëlal. defal jëlal. comme wax jëf jël. comme li wolof di wax jëf jël. ci façon boo xam ne. ci façon boo xam ne. boo ko déggee muy wax. boo ko déggee muy wax. balaa jumaa ma jeex sax. balaa jumaa ma jeex sax. balaa jumla jee jeex. balaa jumla jee jeex. nga nangu li muy wax. nga nangu li muy wax. parce que waxut ak waxut ak ay sentiment. parce que waxut ak ay sentiment. waaye mu ngi wax ak xel. waaye mu ngi wax ak xel. waaye wax ak mbuggeel itam. waaye mu ngi wax ak mbuggeel itam. xel mu ànd ak mbuggeel nag. xaw ma mën ñoo ah. ànd sax de. <laughs> waaye bu ñu àndee. waaye bu ñu àndee. lu nekk mën a am. lu nekk mën a am. yal na yàlla yokk la imam. yéen ñëpp itam yal na yàlla yokki leen. Cheikh Mahi. Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha. Tayba Ñangeen. Tayba Ñangeen. Tayba. Euh, Kër Ma Jebel. Tayba Ñaseen. Tayba Ñaseen. ruq yooyu yëpp. ruq yooyu yëpp. yal na ko yàlla yëkkati. yal na ko yàlla taxaw. Baye daan wax ne. Baye daan wax ne. gouvernement buy séddale. gouvernement buy séddale. day fàtte Saalum. day fàtte Saalum. waaye yàlla buy séddale Saalum lay njëkkee. waaye yàlla buy séddale Saalum lay njëkkee. yal na yàlla dëkk ni ñu sédd rek. bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa nangu leen ñaan amiin amiin amiin amiin yaa rabbi waaw ci ndigalu xalifa bi imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mu ne képp koo xam ne bindu nga nga jël numéro téléphone bii ñu lay wax 611